asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi Fasso Destin ñu ngi leen nuyu di leen ziar di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko euh, di nuyu Serigne Adama Diakhaté mu ñu fekk ci bunt bi euh, kon ni ngeen ko xamee rek euh, ab débat boo xamante ni tey moom moo fi war a am ci diggante Oustaz Fadal Ndiaye ak Serigne Khadim Bousso yaakaar naa du jar sax ñu fi nekk dafa ay détails wala ay faram-fàcce ñëpp xam nañ li nga xamante ni mooy jubluwaay bi te dañ leen a tënkoon tamit wax ji une heure la ñu am lu dul ñu dem ba gis ni rek euh, am na temps boo xamante ni war nañ ko cee mën a dolli tam aju ci li nga xamante mooy débat bi boobaa tam yaakaar naa ñaar ñi nga xamante ni ñoo ko séq duñ ko bañ euh, kon bu ko defee débat bi yëpp xam nañ ko sujet bi xam nañ ko muy ab lettre boo xamante ni ñoom ñaar kii dafay ñëw di saxal kee ñëw di dàq bu ko defee la ci am solo rek mooy kenn ku ne argumenté li nga xamante ni moom mooy li nga indaale Euh, aussi tamit daanaka modérateur sax du jar yaakaar naa mu nekk fi di laaj parce que maa ngi dégg sànq ñu doon def info bi ñu ni modérateur dafa war a màcc li nga xamante mooy wàllu histoire ak yu ni mel yaakaar naa mais ñi fi nekk ñëpp euh, kenn ku nekk am nga sa dégg-dégginu bopp am nga sa gis-gisinu bopp xam nga fi ngay xalaatee xam nga li nga xamante mooy li yenn maana ak li yennuwul maana bu ko defee kon euh, kenn ku nekk si ñoom dañ la bàyyi nga gaaral li nga xamante ni moo nekk ci yow boo paree la gaaral keneen ki am na droit laaj la ñu la lii ak lii foo ko teg bu ko defee nga tontu ci ñëpp ñu ngi déglu ñu ngi bàyyi xel yaakaar naa ni debaa bi euh, gën na yomb comme ci ñu bëri ni ñu ko yaakaaree euh, kenn ku ne di daw di xiiroo naan fii la fee la kon loolu lañ amoon ci li ñuy ubbee bu ko defee incha allah ñaar ñi nga xamante ni ñu séq mbir mi muy oustaz Fadal Ndiaye ak Serigne Khane Bousso euh, mën ngeen a tàmbali tafaddalu mashkurin aoudu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa waaw kay sëriñ bi ñu lay siyaare bu baax a baax si Mouhamed Diop di siyaare sëñ Babacar Fall Xidma di siyaare sëriñ Fadil euh, Fadal Ndiaye di leen ndokkeel yéen ñëpp ñaan suñu borom defal ñu toog fexe defal leen ko waaye di siyaare mboole ñu ngi ci groupe bi yëpp. di wax rek ni euh, incha allahu tabaraka wa taala fa séen ma ànd ak yéen ci li nga xam te ne moom lañ doon xaar boobu ba léegi muy débat bi jëm ci lettre bi ndax sëriñ bi moo ko bind wala bind ko waxe sànq rek ma fas ne gaaral li nga xam te ne nii moom laay njëkk a gaaral ba pare su ko mbokk mi bu fekkee day gaaral mu gaaral li may gaaral nag am na si boo xam te ni nii texte la am ci boo xam te ne nii euh, texte bi lay liir gaaral ko dinaa yónnee texte bi tamit ñu dégg ko. Euh, li may njëkk wax mooy comme ni ma ko waxee woon keroog lettre bi euh, Rawane Mbaye moo ko bind moo ko indi ci teejam moo ko indi ci teejam waaye bu ñu delloo ci. Eh, mbindum historien yu mag yi nekk ci yoon wi dañoo xam la ni lettre bi li gën a wér mooy Paul Marty moo ko bind Paul Marty moo ko bind loolu la wax ñoom te historien bu mag ci yoon wi wax na ko eh, te mi ngi ciy taalif benn téere eh, te wax bi sax inno ci youtube wax nam demee yëpp ala kulli xaal raw docteur Rawxaan moo ko Rawxaan Mbay moo ko indi wax ni sëriñ bi ñu tuumaal ko ni sëriñ bi moo ko bind sëriñ Touba maanaam moo ko bind euh, xamaguma nag ñaata mi ngeen wax ni moom la ñuy wax ala kulli xaal waaye li may njëkk wax mooy képp ku xam dëgg-dëgg sëñ Touba xam fi mu toll ci euh, position ci langue arabe ni mu ko jëkkoo ak ni mu ko déggee xam usloob bi muy bind maa méthode bi muy bindee xam ni muy waxee tamit na ci marxala bii nga xam te ni moom la doon lañ wax ni ci la bind leetar bii ku xam loolu rek danga xam ne Serigne Touba bindul lettre bi du ci aw melo du ci lim làmboo tamit euh, bu fekkee ci melo wi rek la ñu dellu la koy leeral mooy ki mbir mën na koo leeral mbir mu njëkk bi mooy ci biir lettre bi dañoo wax ni euh, daje bi sëriñ Touba daje ak Mbaxaan mi ngi nekkoon ci guddi gi mu ngi nekkoon ci guddi gi te li wér mooy Serigne Touba bi mi daje Mbaxaan mi daje Mbaxaan 18 avril mil ci Mbacke Bawal ci heure 10 heures ci suba kon loolu day firndeel ni kon Serigne bi. bindul leetar bi ma ma ma ma bàyyee wàllu arab gi rek ñëwaat rek ci madmoon bi loolu day wane ni shakl bi day wane ni ak madmoon bi yëpp day wane ni sëriñ bi bindul leetar bi ndax daje bi mu daje ak mbaaxaan te leetar bi wax ko euh, sëriñ bi dajewut ak mbaaxaan waxtu woowu dajewut ak moom tamit ci ak guddi waaye ak bëccëg la daje ak moom. salaamaaleykum wa wa barakatu ñoo yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko xam naa di xaar. Eh, xaadimu so li muy laaj aadama bu tontu ko ci ñu daal di dugal laaj yi toog daal di xaar ndax li mu waroon nekk li nga xam mooy muqaddima bépp débat te mooy doo su muqaddima débat bi mooy bépp sujet boo xam ne ay nit dañ ciy werante moo xam ci sujet diine la wala ci wàllu àdduna faw ñu xam ñaari ñooñu fan lan mooy doon seeni référence lan mooy mbir yi nga xam moo leen di boole ba suñ fa delloo jël leen mën a atte la chaque ne ñëpp xam nañ ne sujet boo jël am na ay spécialiste yoo xam ne ñoom lañuy dellu ci ñoom ñooy référence yi ñoom lañ jël seeni wax kon su fekkee dañuy wax ci nii faw ñu xam ñan ñooy référence yi xam ne fa la ñuy dellu ngir mën a wéral wala ngir mën a daal di euh, daal di dàq moo tax may laaj Xaadim Bousso sama laaj yu jiitu mooy ci sujet bi ñuy waxtaanee dafa laal colonisation laalaal li nga xam ne moom mooy histoire Sénégal ak diine ak tariqa yi rawatina ak bii di tariqa murid laaraale xam ne mooy sëriñ bi mooy sëriñ Touba ñan ñooy référence yi nga xam ne ñoom la ñuy dellu ngir mën a xam histoire d'un point de vue objectif mooy foog mu wax ma moom ñan ñooñu ay référence am ci ci histoire ñan ñooy spécialiste yi mooy téere yi nga xam ne lañuy dellu spécialiste yi nga xam ne la ñuy dellu ngir mën a xam ah lii wér na beneen mbir bi tamit mooy moo tax ma bëgg a xam archive yi nga xam ne ñoom ñooy archive yi nekk Sénégal waa archive yoo xam ne moo laal période bi ñuy waxtaanee di période colonisation boobu ñen ñooy spécialistes yi nga xam ne ci ñoo ba archiviste yi ñu xam nga xam ne amoon nañ accès ci archive yooyu noonu ba ñu mën a fa dellu xam ndax archive wér na wala wala wérut jàpp naa ne loolu faw rek ñu daal di koy xam balaa ñoo daal di balaa ñoo tàmbalee balaa ñoo tàmbalee tàmbalee lenn waaye donte Xaadim Buso mi ñu tudd naan ay kilifa murit ndax ga chaque su fekkoon ne lu kilifa murit yi wax ci Sëriñ Tuuba ma gëm ko jàpp naa duñ toog fii di fekkoon ne lu kilifa yu murit wax Sëriñ Tuuba ma gëm ko kon jàpp naa ne tey ji maa nga ca jumaay Tuuba ja sol sama mbaxtu di jàbbante diggante xabru Sëriñ Fallu ak bu Sëriñ Tuuba kon loolu moom mënut a doon lay xam-xam la kilifa murit yi wax moo xam ah, kooku Géy seetaan naa ay vidéo si la la mu wax xaadim bu soo mën na koo déglu waaye nañ nañu indil ñun moom fa muy sukkandiku ba mën a saxal wala mën a dàq waaye kooku waxam moom ay kilifa murit ak ay nit ñu ay taalibe ak ay sax ay ñoo xam ne ci jamono jii lañ nekk ay historien lañu ñu mun munta doon lay mukk ci li ñuy waxtaane lay doon lay kay mooy aslu ba mooy cosaan ba ah, mooy fa nga xam ne ñëpp fa la ñuy fa la ñuy dellu looloo tax ma koy laaj ki mooy mooy xaadim bu soo kon nga xam ne moom histoire xam histoire Sénégal ci ñoom lay dellu ñan ñooy archivistes yi nga xam ne ñoom la ñuy tudd suñuy wax yi nga xam ne moom la ñuy dellu pour xam histoire Sénégal wala histoire colonisation bi ñu colonisé Sénégal à l'époque bi nga xam moom la ñuy moom la ñuy waxtaanee. Euh, bisimilah rahmaani rahiim euh, laaj bi suñu fàddal laaj nii ñan ñooy archives yi nga xam te ni ñun ci la ñuy dellu ku war a saxal lettre bi wala nga war ko weddi ci yan archive ngay dellu yaakaar naa su ma juumut loolu la laaj. ak tamit ñañ ñooy spécialiste yi nga xam te ñooy atti ci loola loola yaakaar naa euh, dafa waxoon ni laaj bi ñu la ko laajee fokk da koy tontu bala ngaa dem ci beneen <laughs> waaye laaj boobu amul lu ko gën a xorom ndax moom daf koo tontuwaale ci biir yi waxam ndax dafa wax ni euh, bu ma indil ay archives yu murit parce que reconnaître ma leen reconnaître ma leen te archives yi muy wax man ñooña muy wax ñoo ma jàngal wala boog jàng naa ci ñoom te li ñuy waxtaane nii tey sax ñoom ñoo ma jàngal bu reconnaître bu bu reconnaître archive yooya kon li may wax nan la koy reconnaître te yaakaar naa pour mu laaj ma il faut même bu reconnaître li muy li may li ma ko war a tontu sax war naa bàyyi xel ni am na ñuy diglu ñoo xam te ni sama tontu mën na leen convaincre wala bañ leen convaincre comme moom bu mu jàpp ni boppam lay laajal waaye na jàpp ni tamit mbooloo lay laajal kon. waaye li am solo mooy euh, sëriñ bi bi mu fi nekkee ñaar rek la fi nekkaloon ñoo xamante ni ay mbokkam lañ ak ñoo xamante ni ay noonam lañ. maam ñooñu ñoo fi nekkoon ay mbokkam su ma indee li ñu wax ci moom nee nga reconnaître ko ay noonam su ma indee li ñu wax ci moom man dèjà du ma ko reconnaître du duma ko reconnaître parce que ay noonam moom ku ne xam ne lettre bi li wér mooy ay noonam ñoo ko bind ay noonam ñoo ko bind kon yaakaar naa dellu ci archives yooyu dana xaw a compliqué ci moom parce que bu ma ciy dellu dama ciy delluwaat ci nit naa ci delluwaat sax ci loola waaye dina xaw a compliqué ci moom mais li ma ciy delluwaate mooy temps bi ñu wax ni ci lañ bind lettre bi mën naa laa indi li nga xamante ni moom la tubaab bi décidé woon te bind ko ci seen archive ñoom tubaab yi ci temps bi nga xamante nii mooy mois de mai bi nga xamante ni ci wax ni ci lañ ci bi te yaakaar naa loolu moom la rawaan mbay saxal muy mois de mai bi nga xamante ni ci la lettre bi am li xewoon ci mois de mai bi laa la bëgg a tontu rek su ma la ci tontoo naa kon di nga xam nga dellul sa bopp yow comme gëstukat nga ci archive ya xool ba xam li ma wax mooy li am wala boog di lu am euh, docteur rawan li mu wax noonu ni sëñ bi dafa woo commandant Thiès la wax ni dafa woo sëñ bi sëñ bi wuyuwut bi wuyuwut li wér mooy bi ko sëriñ bi commandant Thiès amul droit woo sëñ bi parce que gouverneur bi ndar mooy woo sëriñ bi commandant Thiès li muy def mooy dañ koy yónnee leetar mu jël ko yónnee ko mu dem ci sëriñ bi bu ko dee sëriñ bi buy wuyu ji yaakaar naa borom ndar lay wuyu ki nga xam te ne moo nekk Saint-Louis moom lay wuyu kon kon wax boobu nga xam ne moom la wax moom dama lay indi li archive yi tubaab yi wax ba nga xamante ne nii mala bu xew-xew bi am ci histoire ñu bind ko ndax xëy na boo waxee sax ni mi ngi dem tubaab mi boo waxee nii euh, reconnaître euh, mouridisme ak seeni historien parce que boo ko reconnaître woon tey yaa ngi dem ci diggante barabu Sëñ Fallu barabu nangam di wër di def loola moom man du ma ci tontu ndaxte li tax mooy euh, yaakaar naa loola kon yow am na ay borom xam-xam yoo xam yaa ngi jël seen wax te seen wax ya ngay jël pourtant am na loo àndut ak ñoom te am na loo ànd ak ñoom historien yi ñi nga xam te ñooy bind ci yoonu bu ñu la waxee ci wàllu diine su la neexee nga ni buñ la wërloo xabru doo ko wër waaye buñ la waxee ci histoire nag su la neexee yaakaar naa war ngaa mën a wax war ngaa dégg lañ lay wax ci histoire te nga wan koo vérifier en tant que gëstukat nga ne na war ngaa mën a dem vérifier lañu wax ba xam wér naam dit xaaral ma indil la li nga xam te ni moo sax loolu mu wax ci lettre bi wérut ndax gouverneur moom ci boppam moo woo sëñ bi te bi mu ko woowee sëñ bi tontuwut bi mu tontuwut dafa yónni ci moom mbaaxaan jóob mbaaxaan jóob doomi Lat jóob mu yónni waat ko mbaaxaan ñëwaat ci sëriñ bi wax ko ko sëriñ bi gàntuwaat mu yónni maam Abdou Lo sëriñ bi gàntuwaat ci la alif binde alis bi nekkoon Thiès ci la binde wax ni sëriñ bi dafa yor ay ngànnaay loola la fa waral ay alliwa yu gisoon ak yu mel noonu daa di xamle ni am naa benn agent secret bu tudd Omar Niang dinaa ko jox ñett téeméer dinaa ko jox ay nit mu ànd ak ñoom dem dinaa ko dox wax mu dox ci suuf dem nuyu sëñ bi jébbalu ci moom jox ko addiyee xool ba xam ngànnaay yi wax am na wala amut ba mu demee mu nuyoo sëñ bi juróom fukki dërëm sëriñ bi jëlul xaalis bi ni ko jox ko kooku mu jox ko ki toog sëñ bi jël ni ko ni kooku demal nga jox ko raaw yi ci biti daal ni eh, Omar Ñang moom nga xamante ni moom la yoon eh, yónni moom la commandant bi yónni woon ni ko bu subaa ci takkusaan buñ jëlee sa mbar na nga ñëw ci man ba mu ñëwee sëñ bi ni ko képp ku la wax ni la sama donga la te du jëfee ndigal xamal ni wax wax lu amut la ni ko jëf yiwu nag lu mu toll lu mu tuut tuut suñ borom dana la fay li sëñ bi wax daal ni ko li ma siñeenteeg sama boroom nag mooy du ma du ma sax défense bay rayee aw yoo sax wala aw woñ duma ko rey nga xam tontu na sëñ tontu na Omar Niang ci lim doon wër si ba Omar Niang ba mu delloo ca Victor Alice daf koo wax ni ko xam naa ni kon sëriñ bi dafa am information ni dañ doon def tajasus ci moom dañ doon def gëstu information ci moom moo tax mu tontu lii lii ma lay wax nag man maay saxal yaay weddi yow mi wedd nag normalement li ma laaj sa bopp nga ko waroon laaj euh, daan ni kon sëñ bi am na ngànnaay dinaa yónni ay sordaal ci moom yoo xam te ni naa leen jox ay rab yoo xam te ni day ànd ak tooke bu ñu àggee ñu rey ko gouverneur ànd ak moom ci loolu mu yónni cent cinquante personnes yoo xam ay sénégalais lañ ak cinquante personnes yoo xam te ni duñu ay sénégalais ak vingt mille cartouches la leen jox ñu déparé Tiwaawoon war a dem songi sëñ bi ci daru mën naan tasante sëñ bi génn jëm ndar tasante sëñ bi di génn di jëm ndar lii moo xew ci date bii nga xam te ni moom lay wax léegi nag léegi nag man dinaa laaj ay question tamit comme laaj nga ma te li ma la tontu bu la convaincre ak bu la convaincre jàppal ne yow rek nekkoo fi am na ñuy déglu ñoom dinañ wax tax convaincre na yenam déet waaye man li ma lay laaj mooy yow bi nga gisee lettre bi ndax dem nga gëstu jiwaat ba xam sëñ bee ko bind wala bind ko fan nga gëstoo loolu ak ci ban boroom xam-xam moo la ko wax ak ban archive nga ko waxee ak ndax laaj nga kenn ci famille sëriñ bi wala kenn ci boroom xam yi nga xam te ne ñoo nekk ci sëriñ bi ak ndax dem nga IFAN ba gëstu fa ba xam lettre bi vérifié nañ ko wala déet ak ndax accusé de réception de lettre bi ndax am nga ko wala amoo ko bi nga xam ne si tubaab bi sëñ bi bind na tubaab bi lettre xam nga tubaab moom bu jotee lettre dana indi accusé de réception accusé de réception maa ngi laaj boo ko amee nga dugal ko fii ci groupe gis ko ndax tamit sama beneen question mooy ndax yeneen lettre yi ndax lettre yi Paul Marty bind bari na ndax yeneen lettre yi yi nga xam te dañ ko ma laaj ndax yeneen lettre yi am nga ko ndax gis nga ko bi nga gisee lettre bi tamit deuxième question bi question bale benn la waaye am na yu ne ci ron gi bi nga gisee lettre bi tamit ndax yow xam nga biographie mbindum sëriñ bi ak ndax am nga information ndax sëriñ bi da koo bind wala daf ko imla daf ko dicté kenn mu bind ko ak biographie sëriñ bi ndax xam nga loxo sëriñ bi muy bindee ak nan la sëriñ bi daan bind ndax xam nga koom déet ndax xam nga ni sëriñ bi daa bindee beneen bi mooy euh, ndax yow yow jàpp nga yow ci li nga jàngee ci diine bu fekkee jàng dara ci diine ndax koo xamante ne nii xamees na ci moom wax lu amut ndax bu nee nangam am na da koy jàpp wala doo ko jàpp da ngay jàpp ni loola mu wax dëgg la wala déet tañ miinoon ci moom ay wax yu wuute ndax kii bokk na ci ñi siiwal leetar bi nga xam ne sukkandiku nga ci ñoom koo xamante ni wax na ay wax yu wuute yu baree baree bare bare baree yooyu ay laaj la yoo xamante nii eh, bëggoon naa laaj la ko beneen bi mooy bu fekkee sëriñ bi moo bind leetar bi bu fekkoon tax na ni moo ko bind yow loolu lan lay jëriñ ak lan lay wàññi yow. dagul daal euh, audio yi bari na ñetti audio bari na ci débat benn audio doy na kenn wax daal tontu beneen mbir mooy ñeent ba ñetti question bari na ci euh, ci benn audio wala boog ci benn intervention li ma waxoon mooy def point par point audio par audio. waaye ngir gàttale li feeñ ci wax ji nii mooy Khadim Bousso xamul histoire mooy li muy wax nekkul lom da ko maîtriser. mooy xamuñ ci dara sax lay wax ndaxte suñuy wax ci ab mbir nit ki fa mu xam lan mooy référence yi gens yi waxuñu ci wàllu euh, gëm-gëm li ñuy wax mooy histoire loo gis dafa am ay am yoon bi ñuy jaar pour saxal pour dàq mais xarit bi xamul loolu mooy ne xamul lan mooy archive moo tax ba ko laaj archiviste mu naan ma archive ndax ñàkk xam lay archive moo tax mu naan moo tax ma koy laaj mooy wax ay sëriñam li ma koy wax mooy ne fii nekkuñu di wax ngëm-ngëm ku nekk su fekkee la nga gëm nga ko gëm say maam say maam mën na laa nettali lu la neex waaye nag historiquement pour ñu sax ay biir dafa am yoon la ñuy jaar dafa am loo xam ne moom mooy ko loo xam ne da nga ko denc am loo xam ne dañ koy daal di koy récupérer ca jamono jooju daal di koy teg am loo xam ne dañ koy defoon déclassifier ko nit ñi buñ ko buñ ko xool ndax contrôle nañ ba xam ne lii lu wér la am loo xam ne ñu ko cala ñu ko déclassifier bu na pour de raisons yoo xam ne sensibilité nit ñi la wala parce que amaguñ ay preuve leer na lii mën nañ ko c'est réellement archive bi nekk na loo xam ne ñu ko authentifié loolu ay borom xam-xam ñoo koy def yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci loolu loolu nekkut mooy mooy liggéeyu muhaddis bi nekkut mooy liggéeyu faqih bi mooy domaine boo jël su kon xadis dañuy dellu ci muhaddis wu ni su fekkee ne fiqh la dañuy dellu ci xam ne mooy mooy fuqaha moo tax xaaju bu soo débat bii nii mënu cee indi lenn lu dul la nga xam moom la gëm la chèque loolu tax ñu neen sama sëñ neen sama sëñ neen chèque loolu xam jaarul fa nga xam fa wax li nga xam ne mooy histoire kenn kuy bind ci histoire Sénégal ci colonisation ku mënti doon ku mënti doon nga defub thèse nga bind ci histoire nga bind ci lu dul ne soo tut tut ñii wala boog delluwoo ci ñii zéro ngay am ndax ñii ñooy sa ngay ñii ñooy ñi nga xam ne ci lañ saxal li nga xam mooy mooy histoire ñoom la ñu dellu seen i suñu am na ñoo xam dañoo jamonoog Sëriñ Tuuba ab Paul Marty dafa jamono Sëriñ Tuuba te Paul Marty mosut am benn problème Sëriñ Tuuba da ko doon tagg tagg yu mag a mag a mag a mag moo tax bind étude de euh, euh, étude bind téere boo xam ne bi njëkk bind sax mooy les mourides de Ahmadou Bamba étude de l'islam sur bind ko ci murid parce que bind na ci Niger bind na ci dëkk yu bare bare bare bare am na keneen ku ñëw ci ginnaaw ku ñu tuddee Vincent Monteil ku fonkoon Sëriñ Tuuba wala ku fonkoon murid la den da leen doon loolu la doon teg am na ay archivistes yoo xam ne ay sénégalais lañ bu ko ne Saliou Mbaye xam nekk na président ca archive xam dañoo am archive ñoom lañ ko dañ ko yoroon amoon na ku ñu Omar Ba bind na Ahmadou Bamba face aux autorités colo colo colonial am na ñeneen ñu bind nekkoon ay Cheikh Tidiane si bind na ci ba ci rawan bay duñ tudd te ñëwaguñ ci li xam ne moom mooy moom mooy rawan bay am na ñeneen yeneen Sénégal yu bind ay Gana Fall am na Papa Demba Demba Fall ay docteur ay historien même Pape Demba Fall Gana Fall sax suñu ñëwee ñoom di wax ak mbir duñu jël seen wax lu dañ ko delloowaat ci archive ba lu dañoo delloowaat ci li nga xam ne moom mooy moom mooy archive yi waaye duñu delloowaat na sama bàyyi na laa jàngi sama sax li ma sama laaj ko laaj bi jiitu mooy kon laaj bi jiitu mooy ne Khadim Bousso xamut fii xamut histoire Sénégal ci lan lañ ko war a delloo ba mun koo weddi wala daal di koy wala daal di koy mën a mën a saxal kon lii mooy li jiitu woon dafa mel ni dafa xaw a yeex de dama dama yàkkamti ndaxte temps une heure temps lañ ñu waxoon léegi beneen bi ma ci dolli mooy maanaam lettre bi <laughs> rawaan bay nee ci Paul Marx la jóge rawaan bay nee lettre bi ci Paul Marx la jóge te lettre bi ak bi Paul Marx di ñëw Sénégal da ay <laughs> di différence bi maam kenn mënu ko lim maam bu fekkoon lettre la rek lettre bi ak bi Paul Marx di ñëw Sénégal di ñëw di nekk fi nekk ñu koy boole sëñ bi maam leetar bi jiitu Paul Marty fii ci réew mi maam leetar bi ñu ko ay noonu sëriñ bi di sos boo Paul Marty ñëwagu kon noonu ya ko sos dañoo mujj ragal ñoom daan ni kon leetar bi nañ ko askanere Paul Marty nañ ko askanere Paul Marty eh, waaw naa naan déglu li nga wax ma dama ñëwaat mbokk na ay audio yu bari dama bàyyi ma wàcc dëgg yàlla maa ngi ñëw dama ma wàcc samay audio léegi nag question la bu mu a laaj question bi mu njëkk laaj mooy ne moom ci lay li njëkk sukkandiku ne ci lay dàqee lettre bi mooy ne Serigne tuubaa gisewul ak mbaaxaan Jóob ci guddi gi li njëkk mooy ne ci lettre bi nekku ci fenn ne Serigne Touba daf la gise ak mbaaxaan Jóob ci guddi gi loolu mooy gi jiitu kon amut fenn fu lettre waxee Serigne Touba la gisee ak mbaaxaan Jóob ci ci guddi gi ñaareel bi mooy ne la mu wax ne moom suñ Tuubaa dafa gis Mbaxane Diop ci dimanche bi ñii nii mooy dal ma tudd leen ak ñeneen ñoo xam ne ñu bari ñoo xam ne tudd ma leen ci historien yi dellu seen dañ dellu seen i ñoom ñëpp wala ñu ci bari ñoom indi nañ loolu waaye wut nag li nga xam ne moo nekk lettre bi te ñoom jug bëgg a bañ loolu ndax jàpp ne loolu amut ñoom indi nañ ko amul benn contradiction bu nekk ci loolu ñaari yo ñaari mbir bi mooy fekkoon ne dafa sax ne ci lettre bi te nekk ne waaye dafa bind suñu suñ Tuubaa daa gisee Mbaxane Diop boobu ca guddi ga loolu mënut a dàq lettre mu jarrat ne am na leneen lu sax li suñ tubaab gis na moom dix heures su booba da ngay daal di xool léegi ndax ñaari yoon la gis ak moom ndax benn yoon la wala ñaari yoon la loolu noo koy saxalee da nga koy saxal historiquement doo ko saxalee ay nettali da ngay xoo demaat ci archive yi xoolaat la nit ñi wax daal di daal di boole su fekkee da ngaa gis ñii di saxal dix heures ñii di saxal ah, ñaari wala boog ñii di saxal ci guddi gi nga daal di xool nooy def ndax da ngay boole ñaari mbir yi ndax ci benn ndax ñaari gise la woon fekkee ñaari gise doo benn problème ndax benn gise la woon fekkee benn gise la su boobaa daan nga mën a tarjeex nga xool ban moo ci wér bu ci wérut waaye loolu dañ koy jaar historiquement doo toog sa salon rek daan ne wérut wérut sama jëriñ ne nañ wérut wérut wérut loolu nekkul waxi dara loolu du waxu du waxu xam-xam du waxu du waxu dara ànd ak ne lépp mbaaxaan jóg dayta bi di waxut ne dafa giseeg moom ca ci suba ga waaye su fekk dafa gis moom ci guddi waaye su fekkoon daa wax dafa gis moom ci suba gi sax mënut a doon benn lay pour ne lettre bi lettre bi amul ak ñu wax suñu musil koy wax wala nañ koy delloo ci ci téere xam ne ñooy yi ñu ngi dégg wax fañ koy delloo mooy ci historiens loolu la ñuy càmbaree ba xam ndax liy wér na wala kon loolu mooy premier point bi ngi ñu indi pour dàq lettre bi mën nañ koo jël daal di koy sànni sànni fële toftal nga ci yeneen laaj soo bëggee ma tontu ko ndaxte yaa ko yaa ko laaj ànd ak ne dañoo war a def benn débat méthode day méthodique benn par benn ba suñu fii lépp leer ci bopp nit ñi. Ah, ok euh, sëñ Fadel euh, wax dëgg yàlla jéem naa laa respecté ba sonn waaye naa naa ko jéem di continuer waaye respecté woo moom parce que euh, yow ni nga may traité nii rek déjà <laughs> day wane ni yow amoo ay argument wax dëgg yàlla amoo ay argument avec le respect bi ma la jox nag nga ni nga ni mënuma débat ci lii parce que samay maam laa lay wax pourtant waxaguma la ba tey sama waxu maam de te indi naa lu bare bare bari mais kon xaaral ma indiwaat la leneen Antoine moom yaakaar naa xam nga ko Antoine bu fekkee ay mutaxassisun ngay wax ñi nga xam ne ay spécialiste lañ ci mbir mi Antoine yaakaar naa xam ko bu baax a baax bi lii la wax ci sëñ Touba jamono yi ngeen di wax lettre bi Antoine moom lii la wax ci sëñ Touba te du ab na kii ma gis kii ma gis li ma gis ci moom am na benn force intérieure boo xam ne daf ko juddwaale xawma nag fu mu ko jëlee ak fu mu moom waaye li ma leer ba leer ma daal mooy man xawma fan la loolu daal laa mën a xam ci mbir mi te ni ma ko gisee mooy jëflante ak ay taalibeem nag ak i mbokkam mosuma koo gis ci kenn te xawma fan la ko jëlee mënuma fexe ba xam ko li ma xam daal mooy nuurul nabawi nuur nuurul nabawiyun maam leeru prophète yi prophète light moo ci moom nee na leeru yonent la gis ci moom nee na ak benn secret divine ak benn secret divin boo xamante ne nii dimbali na ko ci mu am xol bu set wicci wicci wicci wicci yéenewul kenn lu bon ba tax na ni muy jëflantee ak yi noonam noonu lay jëflantee ak i soppeem am jikko ji rafet joo xam te ni jaaxal na ñëpp tamit ak xol bu weex tàll boo xam yéenewul kenn lu bon lii laa seede ci moom man Antoine lii laa seede Sëriñ Tuubaa waaw mais euh, Antoine bu seedee li ci Sëriñ Tuubaa kay wax dëgg yàlla te dangaa wax ñu indi la ay mutaxassisuun waxi Antoine jooju da nga koy da nga koy gëstu RFI ci boo xam tey fa mu leer naa ñu confirmer ko ñoom waa RFI tamit waaw ñu confirmer ko ñoom waa RFI te sama laaj yi tamit tontu googu bëgg naa nga tontu ma ci mooy yi ma la laajoon tànq nii fàttewoo ko yaa koy liir te xam nga ko tontu ma ci après tamit nga tontu ma ci waxi Antoine ji te nga tontu ma tamit ci li nga xam te nii wax naa la ko lépp ci wax ji yow continuer. bëggoon laaj ci ñaareel bi mooy ndax liir nga téere rawan day bi waaye da gis ne liiru téere rawan day bi. ndax la mu njëkkoon a wax mooy ne rawan Mbaye da ko indi ci annexe loolu ay nar la Rawane Mbaye ñu ko indi ci page 432 daal di bind référence bi ci annexe ba ci fan la delloo mbir bi mi ngi ko delloo ci archive nationale la ko delloo delloo ko fan ci dossier Sénégal Rawane Mbaye bala moo bind thèse boobu noonu dafa dem ñu daal di koy ka nga xam ne mooy Omar Ba nga xam ne jamono jooju moo yoroon archive daal di koy ibbil archive Omar boobu boobu noonu la nekk ca lettre ba la ca nekk ci sëriñ bi daal di feebaroon la ca nekk ñu daal di koy woo la ca nekk muy négocier ak tubaab bi lépp danga nga ko fay delloo mu yóbbuwaat la ci archive archive nationale dossier archive nationale dossier Cheikh Amadou Bamba daal lay dugalal pièce ba di indi fa yeneen mbir yow indi la pièce ba nga xam ne fa lañ koy fa lañ koy classifié ndax dellu naa foofu pour xon na lettre ba loolu ay waxi du waxi dara li ñuy jànge histoire nekkul bépp archive bu ma nit indil damay dem ba foog teg sama bët dog ni dog ni wér na yow li ngay wax fii lu bari su na laajoon dix heures boobu Sénégal nga affirmé ne ci la mbaaxaan gi fekk Serigne Touba ndax dem nga vérifié ko te da nga ñëw fi di ko di ko affirmé da nga fi affirmé naan Paul Marty ba mu ñëwee Sénégal euh, boobu euh, fekk na mbir ba jàll yow yaa wax ne Paul Marty moo ko bind lool say sëriñ ñu ko wax loolu waxu teguñu ko fenn Paul Marty ba mu la mu indi ci archive la dafa nekkoon président archive yi moo tax la muy indi ci archive la koy teg te mu benn spécialiste bu ko remettre en cause ci archive yi mu indi askane la ko ci jamono jooju amul kenn ku ko remettre en cause lu dut ay murit yoo xam ne dañoo ñëw bëgg koo def ab noon ci sëñ bi te nekkuloon noonu sëñ bi naa la eh, révélé benn mbir benn photo dong bi nga am yow photo dong bi nga am ci sëñ Touba photo kese bi ñëpp nangu. Paul Marty moo ko photo sëñ Touba te photo boobu yaa ngi koy yaa ngi koy jël sooy gént sëñ Touba soo koy xalaat ba mu koy génte mu ngi koy xalaatee te ka ko indi ka ko njëkk a mooy Paul Marty moo tax Vincent Monteil ne Paul Marty ci boppam moom moo photo moo photo sëriñ sëriñ sëriñ Touba kon loolu tegee ko fële ndax sëriñ Touba def koo imla ndax daa taxaw bind ko ndax ba mu bind da koo toog ndax ba muy bind da doon génn ndax ba dafa nekkoon ci néegam ndax da doon jàng alxuraan loolu amut solo ngir saxal lettre bi wala bañ koo saxal mooy ne lettre bi ba ko rawanday indi dafa indi fan la ko jële moo ci archive yi soo demee ci yeneen téere yu bari yu bind ci Serigne Touba te noonoowuñu ko objectivement moo xam David Robinson la moo xam Gana Fall la moo xam Demba gi ma gi ma tudd la moo xam Vincent Montey la moo xam ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp da ngay gis ne jamono jooju noonu di mille neuf cent deux ba mille neuf balaa ñu ko yóbbuwaat Mauritanie balaa sëriñam ba nekk ci Mauritanie di intervenir ndax yërëm ko léegi sax ñoom ñëpp dañuy indi ay archives yu wan ne sëñ bi daa tàmbalee di négocier yéen a ko bëgg a defa ayib waaye mën naa doy la sax ayib waaye noonu lu wéri te mun nañ ci indi benn par benn te doo ko mu ne teggee nen rek loolu samay sëriñ nee ñu wérul ndaxte ñoom dañoo jàpp ne sëriñ bi warta warta feebar wala sëriñ bi warta bu a warta bu a négocier te mu négocier ba ba muy faatu ñu daal di koy jox li nga xam ne mooy légion d'honneur bañut légion d'honneur ba la mu bañu rek moo ñu indil ko li nga xam ne moom mooy moom mooy croix bi daal di koy jox diplôme bi looloo muy li mooy sax ci archive li ñuy débat tey du debaat ndax sëñ Tuubaa bu baax la woon wala nekkuloon ko baax ndax seel woon du lu seen wax jooju xam naa ko bu baax gis naa ko ñu bind ko loolu Antoine wax ci euh, te ñori na Antoine Antoine Gomis wala Mendy wala Fall wala te doo tudd sax fi ñu ko tuddee loolu nga xam ne moom la Antoine wax ci moom moo Paul bi ngeen di wax naan bëgg ko def noonu sëñ Tuubaa wax na lu raw loolu sëñ Tuubaa loolu nekkut moom mooy problème bi problème mooy na lettre wér na wala wérut loolu noonu wuteelul ak dara ak lettre bi sëñ bi dañ koo sosal yi mbir ay noon di bindi lettre di yóbbu ci gouverneur ba bëgg koo sosal bo bëgg ay courrier yu bari dem di wax dañ koo woo mu bañ lànk ba defal ko ab sa ab lettre boo xam dañ naan benn moom mooy je suis carte du ma jugee fii ma nekk mu bind lettre ngir daal di teggi ay tuuma daal won gouverneur bi ne ko ñooñu la ñuy wax dara amu ci man dama lay toppal dama lay déggal kon Antoine nee na sëñ bi naaw na ci jaww ji sëñ bi doon na ku baax la woon sëñ bi gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo fa toog moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nekkut mooy sunu débat loolu dindiwut dara ci lettre boobu noonu li nga xam ne sëñ Tuubaa bind ko sëñ Tuubaa ñi témoin ci moom bari na lool te loolu nga def nag ba saxal ba saxal na Antoine témoignol témoignol boobu nga ne lu baax la foofu lañu jaar nag ba saxal ne lettre bii nii kenn mënu koo teggi historiquement lu lu nga teg ko ci ci sa ci sa ci sa ci sa gëm-gëm ki ko indi daf ko indi jële ko ci archive daat lay delloo ci archive archive ñu daal di koy date daal di koy tamponné kon loolu mooy li nga xam ne moo tax ñu xam ne lettre wi nag dellu nag ci yeneen téere xool ne kenn dindiwut loolu xool ñu nettal histoire bi yépp dañuy nettal histoire bi histoire suñ tubaab tubaab bi ci ay étape étape boo xam ne dafa beru ñu daal di koy tuumaal amul ak sekk lu ñoom dara yóbbu ko mu dellu si tuumaayee continuer tubaab bi gën a jaaxle ndax nit ñi gën nañ koo topp ñu def seen ni tappale ñii di bind ñii di boole sëñ bi di sëñ bi di di jéem a weddi ñu daal di koy yóbbu ndax la loi du plus fort est toujours la meilleure foofu la ñu gëmoon moo di justice ñu daal di koy yóbbu siw euh, siw sëriñam ba mu dem ba gis ne léegi nag lu bari sax ma nga cay ma nga cay négocier waaye ba tey bugguñu influence bi amoon ci taalibe yi dem ba ëpp leen loxo leen daloon ci Omar Fuuti Taal daal leen di daal leen dalaat ñu la koy man nga saaga maag nga ñàkk maag ma am na argument aw loolu weesu nañ ko tungale du toog ñuy ñuy nataal ma réew ñoo ngi ñoo ngi débat indil ñu lan ci lan nga teg bëgg ne ah lettre bi yorut à samay sëriñ nee nañ loolu la xamoon samay sëriñ nee nañ ah qaala shuyuxuna samay sëriñ wax nañ lu suñuy sëriñ wax loolu mooy loolu mooy dëgg la chaque ne loolu nekkut na ci mën a daal di taxawal histoire Sénégal boo ndax ku am ku nekk say sëriñ nettal loolu nga waxee say sëriñ ñu gëm ko noonu la tiijaan amee suñuy sëriñ ñu wax ay mbir yu weddi la say sëriñ wax nan la ne di attee ku ne day gëm na nga gëm te ku ñooñ suñ ñëwee daan wax seen sëriñ la ñu wax wax sëñ bi fam na mu jugee Dakar wax seen bëgg bañ ko ne Dakar na nam fa ñëwee wax sëñ bi mbir yu bare bare bare da ngeen di toog ne lan nañuy def dañuy dellu ci archive kon moo yow dañuy dellu archive waaye fekk ku nekk da ngay jël sama sëriñ ba dem déglu sama sëriñ mu wax sa sëriñ keneen déglu sëriñam kon dëgg kenn du xam fu mu fu mu féete kon bàyyi li ma wax sama sëriñ ñaar ñi ñu ci lettre bi nga wax ma kenn ci Antoine yooyu ngay tudd Gomis ak Mendy kenn léegi nag historien yooyu noonu tubaab yooyu noonu kan moo ci bi lettre wii nii wala kan moo ci remettre en cause négociation sëriñ bi ak tubaab bi ak sax lu ma tax ñu dem ba jox ko li nga xam mooy légion d'honneur. Mhm. waaw kay li yow li ngay wax tegoo ko ci xam te xamoo ko da ngay tudd ay tur ngir IGRA ngir jéem a gondi ñi ay nit ñi bu ko defee ñu ne kii dell na ci archive yow yaa delluwut ci archive <clears throat> ndax boo delluwoon ci archive da nga xam ni rawaan bay ci boppam mi bindoon téere bi mi waxoon dafa jël ci archive ba mu demee ba gis lu wuuteeg archive yooyu ak gis lu gën a wér sax daf caa dellu ginnaaw ñëw Tuubaa jébbul jéggalu leen ci coobaree boppam moom rawaan bañ demee ba argumenté ko suñ Moustapha Lo démentir ko mu dem ba gis la wér moo ci boppam dafa delsi waat Tuubaa daal di jéggalu waat Tuubaa te yow si coow lépp ci deetu rawaan képp nga sukkandiku yow li ngay wax ni yëpp amul li ngay wax ni suñu daa négocier loolu moom li koy tontu li koy li koy yombal tontu bi li koy li yombal tontu bi mooy sëriñ bi musta négocier akuk tubaab ndax leetar yi dafa bari woon ba nga demee digg indi leetar bi mënoon ngaa dem yàgg rawaan ngeen jëli le yeneen leetar yi Paul Marty bind na yeneen leetar yu bi tuumaan lañ t Paul Marty ni moo bind yeneen leetar yu bukk bi mënoon ngaa dem ci loolu nga dem def ci ko euh, bi nga xamante ni loolu jamono yi loolu di am yi ngay wax ni sëñ day négocier ak ak yooyu sëñ bi ci boppam dafa bind benn leetar wax leen ni leen li ma leen di xamal mooy képp leetar bu mën a ñëw ci yéen li ma bind lii la mooy maag yéen bokkuñ ñu jëm li ngeen nekk nekkuma ca li ma nekk nekku leen ca te ñu juboo ci point mukk mën a yéen daan ni wasalaamu ala man ittabaa al huda sëriñ bi suy bind leetar la muy wax mooy wax ala man ittabaa al huda man du ma topp say principe léegi li may topp mooy liy jëriñ nit ñi laay topp ndax yow euh, amoo ay principe bi débat parce que sa débat bépp mooy amoo xam-xam amoo nangam da ngay fen da yooyu yooyu yooyu xam nañ la ci xam nañ débat boo dugg du continuer nañ wax ci xam laaj yi ma laa yoon tontuwoo ci ba tey amaa gisee sëñ bi mbaaxaan gisee sëñ bi mbaaxaan kooku moom yow nga ne amul relation ak mbir mi ah kay yow léegi nee nga nee nga nee nga nee nga gisantu rek moom dix heures suba léegi indi lu firndeel guddi gi la gisante ak moom man dama ne la dix suba la gisante ak moom léegi indil yow luy firndeel ne gisantu rek moom dix heures suba ci guddi gi la gisante ak moom te guddi gi moom téere bi da cee sax fi jaw fii léegi téere bi te mbaaxaan moo doon yóbbu affaire bi indi luy waaye loolu beneen bi mooy li ma lay waxaat mooy euh, sëriñ bi bu doon négocier ak tubaab bu doon négocier ak tubaab tubaab yi duñ dem ba delloo si waat ba duñ dem ba àgg ak moom ci di ko génnewaat dëkk ba bu doon négocier ak tubaab kon tubaab yi duñ ko génne kon tubaab yi duñ ko yóbbu Gabon duñ ko yóbbu Gànnaar duñ ko yóbbu Mayomba bu fekkoon day négocier ñoom bu fekkoon day négocier ñoom fii lay toog nekk ak ñoom di waxtaan ak ñoom di sàkkonte ak ñoom jàmm waaye leetar bi xam nga ni mos kuy tukkaliku naan sëriñ bi dafa doon négocier bi xam nga ni amoo xam-xam xamoo wax tamit beneen bi mooy waxoon laajoon naa ay laaj mbindum sëñ beeg yokk nga ci sax naan ay fam toogoon ba mu koy bind yooyu loolu dama laa laaj ay laaj dama bëgg nga tontu ma ci ñii modéré débat bi nañ ñu nañ ñu kii ci loolu nga tontu ma ci laaj yi may laaj bu fekkee mënuma ci tontu kon ma continué waat indiwaat sama ardu insha allah leetar bi sëñ Tuubaa bind moom mi ngi nii dafa leer nañ dafa wax ne bismillahi rahmani rahim min ahmad ibni ahmad ila qaidin jaarin mi ngi jógee ci ahmad bamba dem ci capitalu njaareem yuxiituhu ilman bi anna hada huwa aljawaab min kaatibi hadihi alxuruf lii mooy tontu bi jógee ci ki bind laaj yi daan ni ni ko leetar bi mooy kooku mooy jaamu yàlla bi nga xam te ni moom ku dul yàlla doyu ko daan ni ko assalaamu ala man ittaba al huda indil ma benn leetar yow fadal indil ma benn leetar bi suñ Tuubaa bind boo xamante ne nii lañ cay wax mooy sëñ bi da koo bind ba àggal te waxu ci wasal bind ko tubaab bi te bind ci wasalaamu ala man ittabaal hudaa indi ma beneen leetar boo xam suñ tubaab moo ko bind bi wala boog indi ma beneen leetar boo xam suñ tubaab ko bind tubaab bi te bind ci wasalaamu ala man ittabaal ku xam suñ tubaab xam ni bu daa bind tubaab fa koy tàmbalee fa mu koy jeexale yëpp mooy wasalaamu ala man ittabaal hudaa ni yonente bi daal nuyoo yéefar yi daal ni ko ginnaaw ba na nga xam ni jot naa sa leetar xam nga leetar bi euh, rawaan dafa wax ci biir leetar bi leetar bi nga xam te ni moom ngay saxal ni sëñ bi ko bind yow moom daf cee wax lu leer wax ni leetar bi sëñ Tuubaa agsi na ci moom euh, leetar agsiwut ci moom ndaw agsiwut ci moom leetar bi loolu la wax leetar bi ngay saxal ni dafa wax ni sëñ Tuubaa ndaw agsiwut ci moom leetar bi agsiwut ci moom te sëñ Tuubaa moo wax ni fii nii wax bu leer nañu mu sa leetar bi agsi na ci man te li ma lay tontu mooy anni abdullahi taala wala atarif bi rububiyyati xayrihi wala bi siyaadati ahadin siwaahu li ma lay xamal mooy li ma lay tontu mooy man maay jaamu yàlla mu kawe ma te du ma reconnaître buuru nguuru kenn ku dul yàlla wala sang sang te kenn ku dul borom bi subhanahu wa taala wala ashkuru wala arda an gayrihi du ma sant du ma gërëm ku dul yàlla wa huwa allahu al ahadu al azamu al akram moom mooy yàlla mi nga xam te ni mooy kenn moo gën a màgg moo gën a tedd wasalaamu ala man ittaba al huda lii boo xoolee al gaybatu al bahriya li cheikh al xadim mang ca lettre bi ci archive nationale mi ngi nii jàkkaarloo ma dinaa ko dugal en français ki ko yóbbu woon mooy Balla moo ko yóbbu woon Thiès leetar baa ngi nii dañ ko traduire ci arab Seydina Omar moo ko rolal ci téeréem bi ngay wax Ahmadou Bamba face aux autorités coloniales mille huit cent quatre vingt Omar ba Omar ba mi ngay wax ci page quatre-vingt-dix-sept comme nee nga Omar ba dèjà Omar ba kon xanaa doo ko tuumaal ak sa naaqut moo indi li ci ab téeréem wax yi léegi suñ tubaa tontu loolu si nga war a wax kon Euh, beneen bi mooy da cay am lu ci nekk loo xam sëñ bi daawut waxee noonu mooy di wax naan euh, tappalekat yeeg rambaaj yi ñoo ma dugal ci ñoo ñoo lay wax lii ci man waaye lii dëgg ci man a loolu amut loolu amut am nañu daa bind di way tubaab di wax tubaab bi di ko wan naan ko euh, sëñ Tuubaa ci boppam yaa ngi koy tuumaal waaye rambaajee koy tuumaal am nañu daa bind sama maam si la bokk suñu mbàkk bisu qul lil amiri wala turhibka lam ca wax loolu la di wax tubaab bi ne ko li ñuy tuumaal suñ tubaab dara amu ci mais jëmbi suñ tubaab musta démontré loolu sax far di wax naan li ñu may tuumaal amu ci nangam ak leen wax ni man dofuma loolu leen tontu waaye tubaab bi li mu doon tuumaal suñ tubaab suñ tubaab lii la ko ci tontu mu leer nañ encre lañ ko bi bu baax daal daa bindee moom suñ tubaab suñ tubaab daal daa bindee beneen mooy date yi datee dat yi si dat yi nga ci lettre bi nga xam lañ ca bind lañ ca bind mooy ay mille nangam Sëñ Tuubaa daw bind mille nangam ilim benn lettre Sëñ wala kenn fu mu bind mille nangam Sëñ Tuubaa ama jay lay wax wala ama nangam ci xuruuf yi waaye du ko bind mukk ci arqaam Sëñ Tuubaa daw bind ci ay numéro ci ay araf la daa bind la daa bind année yi beneen mooy kenn ñëpp xam nañu ne Sëñ Tuubaa mustawa maam Cheikh Anta naan ko Cheikh Anta Cheikh Anta Sidi Gaawaan da koy wax Sidi Muxtaar waaye mus ko woo naan ko Cheikh Anta mooy lan Sëñ Tuubaa xanaa bu fekkoon jàpp nga ni jàngul sax xanaa du wax Cheikh Anta ah, tontu nga sama ma sama laaj yi moo gën ngay wax te yi ngay wax. mu demee ko mooy njëlbeen gi mooy question question audio audio mais bëggee woon noonu da wax wàcce audio yu bëri moo tax laaj boo xam ne laaj nga ko fàtte ko fàttali ma ko man damaa bëgg mbir yi laaj bi nga ma laaj ne ndax am na njëriñ lan mooy njëriñu sëñ bi su fekkoon bind lettre wala bindu lettre lan la may jëriñ donte laaj woowu doon ba tey xam-xam wut ci li ñuy waxtaane mooy ci histoire pour saxal wala laaj woo amul ci njëriñ waaye dinaa ci tontu daf ñuy dimbali ci leneen loo xam ne leneen la yaa ko ci dugal mooy lan lan lay ñuy jëriñ lim may jëriñ mooy lenn mooy dimbali sëñ bi ba sos yi ngeen koy sosal mu mën cee set deram set ci ba kenn du ko ca topp mu am lenn lu muy régler ak yàlla ci mbir moomu mooy ci point bi muy jiitu ndax da ngeen a jël di mbir yu bari yoo xam ne sosal ko ci histoire Sénégal daal di ci nag daal di koy tasaare ba pare nag taxaw ne kenn du wax lu wuteeg loolu ku wax lu wuteeg loolu ngeen jël ko menacé ko jël ko yóbbu ko mu jéggalu doo bu ko dóor daal di koy xañ àdduna lii tax lettre yi am solo te yeneen lañ fi mooy bi rétablir la vérité ba nit ñi xam dëgg moo féete xam ne ñu bari dañuy sos. di ci dund waaye dund ko ngi dund sañ du suñ problème waaye problème nag mooy dañuy rey ñun dañuy rey suñu histoire duñu xam lan mooy dëgg duñu xam mbir yi fi mu yem dañuy suul li nga xam ne mooy histoire Sénégal te histoire dafa baax fi ma cim réew waaye soo jëlee histoire daal di koy nag di koy falsifié am sa doole am sa xaalis am say taalibi ne kenn du wax lu wuteeg loolu loolu problème la kon lettre amul benn problème amul lenn lu muy wàññi ci sëñ bi man pour man lu dul rek peut-être benn biir mën nañ ko ci ñëw ci wàllu xam-xam mooy gaa di jëli yéefar yu la ñëw noot nga ne da nga leen defal samwa taa te nekku ci lees bi kese la feeñee loolu mën nañ cee daal taxaw waaye amut lenn la lu muy wàññi lu dul wane ne sëñ bi ah dañ ko nootoon jéem na sax mën na fa yokku sax am mbiram mooy ne ah moom de sore woon na tubaab bi sore woo xam ne la ko nit ñi doon sosal tubaab bi doon nañ ko gëm waaye nag nit ñi dinañ xam ne lañ doon doon wax na dafa ñëw eh, joxoñ tubaab bi di ko joxoon ñi wala di nangam def nangam di wax di ñëw ci télé di solo nit ñi nit ñi xam ne ay naar kese la ko nekk daal di xam ne moom mooy histoire Sénégal comme comme il faut ba képp ku ñëwati wax histoire donte nit ki d'accord ci yow sax du la saaga du la dóor du la xas du la da ngaa bañ kii du la wax du la porter plainte. te Paul Marty dafay nekkoon noonu suñ Touba bi mu demee ba xam kan mooy suñ Touba nag mu <laughs> mu mu jaaxle suñ Touba semmal ko ab noonam la woon nekk. ki gën a bon ci noonu Sëñ Tuubaa di bind ci moom yu bon a bon ci ay maraax yi waaye ba mu demee ba xam ne Sëñ Tuubaa amul morom mu dégg Anta Antoine di wax ci moom ak yu mu jaar ak Sëñ te moo tax moom mujj reconnaître loolu moo tax li ngay wax naan Sëñ Tuubaa mu bind ci moom lu rafet ci doon la ko yaa ngi nii da wax ci lu ñaaw bu subaa nga wax ci moom lu rafet la nga xam fikir ngay wax ci moom la nga gis ci moom nit ki moom nit moom lañ la ko attee ak ko gisee ba atte ko boo demee ba séen ko ba jaxasoo moom ba ba jàmmaarloo moom man ko may attee na man ko may attee na mais bu ma sama laaj yi ma laaj nga tontu ko mu leer nañ ñi et tamit nga leeral ma yow la li tax nga ni leetar bi Sëñ Tuubaa ko bind fan la ko teg li tax nga ne Sëñ Tuubaa doon la négocier ban argument nga ci am indil ma beneen argument bu dul leetar nga ma ab leetar indil naa la leetar bu leer nañ ñi Sëñ Tuubaa bind ko signé ko wax wasalaama ala man ittaba huda muy signature bu ñëpp xamoon yow nga indi lettre boo xam kenn si wu ko kenn waxu ci loola ah. léegi yow waneel ni lettre bi lii fii fii la jógee lii moo wér wane ko indi leen loo xam day leer naa ni waaye waxagoo fi leen loo xam te ni ma ne sañ jàpp lu leer waxagoo ko li jiitu mooy yaa ngi répété benn mbir lettre bi amul fenn amul fenn fu mu waxee ne mbaaxaan dafa gisee sëñ bi ca guddi ga amul fenn yow yaa ko loolu yow yaa ko amut su fekkee ne loolu daa am ci lettre bi indil ma lettre bi jànxam ma ne mi ngi nii loolu amut loolu kon yow say wax la lettre bi loolu nekku ci lettre dane bañ ko woowee ci guddi ga ca la daal di jugee daal di dem mu ne ma nga fa egg ca xaaju guddi jawfulee yow nga ne jawfulee du arab <laughs> loolu nga ñu koon wax ne jawfulee du arab xaw ma yaa ci ba tey wala den nga ci ginnaaw loolu mooy di jiitu waxut fenn ne ci guddi gi ba mu eggee ca xaaju guddi ga dafa wax ak dafa gisee ak mbaaxaan jóob kon ñaari mbir yi amul lu ci wute ba nga mun cee dàqul lettre beneen mbir mi mooy rawaan dafa dem daal di jéggalu waaye yéen di ku ku rawaan sax dina jéggalu ndax da ngeen seen doole yor seen i yat di dumawaate ku wax histoire loo leen arrangé loo leen jàpp ne laaj sëriñ bi ngeen menacé ko xañ ko jante bi man mii sax xam naa su ma noonu ñeex yóbbu message bi mën naa jéggalu waaye jéggalu googu du tekk du tekk dara du dindi dara dara ci dëgg rawal lu mu indi aw thèse la ay ni ay docteur ñoo discuté thèse boobu mu indi archive yi da ngay gis la mu indi page yi ñu ca delloo ñu fa waaye nekkut ñun ci rawaan kese lañ basé wu de leet boobu su amul woon sëriñ bi ci jamono jooju ba mu dellusee bañ yóbbu ko Mauritanie rawat na ba mu dellu dellusee jógee Mauritanie dafa négocier yu bare bare bare ci loolu loolu du ayib de ayib la ci yéen ku noot ci lislaam amul doole ay yéefar ñoo noot ko man moom lay faral sama xol moom lay sotle waaye dañuy rétablir mooy dëgg dañ ko noot moo tax mu daal di négocier léegi su fekkee ne nag sa laaj yi may nga ma tontu ko ma tontu la pare indil la yeneen mbir yu dul jeex ci archive bi te yaa ngi nii li ma tax ma laaj la depuis le début ci lan ngay basé wu damaa xamoon loolu mooy damaa bëggoon xam ci lañ ngay dellu yaa ngay dellu pour saxal ne sëñ bi am na lu baax nga jàpp ne loolu lu baax la te mu nekk lu baax te ngay dellu nag di dàq lépp ñooñu su la indilee leneen loo xam dafa wuteeg sëñ bi nga daan ne loolu ay noonu sëñ bi yaa ngi indi ne Paul Marty indi na ay wax yu bari ay leerta wax nga dëgg yoo xam day won sëñ bi mu dëgër day wax sëñ bi ci lu baax waaw léegi li sa kooku su indee loo xam da ngaa jàpp ne lu bon la nga bëgg ko accuser nga daa bañ sëñ bi moo tax da ngay dàq ay mbiram xam loolu mënut a jub loolu laa fekk ne lépp ko dara jubu ci waaw sëñ bi waxuñu leen ne sëñ bi musta am lu mu bañal tubaab bi déedéet bañal ci dans le sens mooy waxoo waxoon naa fii ne sëñ bi amul dara lu mus tubaab musa rëdd mu tegg déedéet loolu amut amul tubaab musa rëdd mu teg waaye ci njëlbeen ka balaa ñu ko yóbbu Gabon daa toogoon ci rukkam daawut dugg ci buur yi yittewuleeg loolu nit ñi di ko sosal di ko sosal mu sori leen bañ jàpp yóbbu mu del si xam ne fii ñu yóbbu woon fu ñu jafe la mu ëndaale feebar feebar ba sonn maa ngi dégg seen géej googu naan feebarul woon ak di wax nangam ak dafa feebaroon te yeneen lettre yoo moom bind ko sax ñey ñu ko doon seet ñoo ñëw bind ne bañ yóbbee tubaab yi dinaa ko lire Omar ba indi na ko ci archive bañ ko yóbbee bañ ko yóbbulee lettre bi sëñ bi dafa bañ daal di prétendre que dafa feebar loolu daal di firndeel lettre bële ala kulli xaal ba mu dérissé ci la position yi changé ci historiens yi noonu la ñu kon sëñ bi doon na dëgëral mën ngaa gis foo xam ne doon na dëgëral ak ñoom mën ngaa di gis foo xam ne daawut soxla dara daawut négocier ci dara waaye dem na ba mujj gi nag muy négocier ay lettre lu dul jeex boo ci indi mën nañu indi lu dul jeex yoo xam ne sax yenn saa yi dangay gis ne ëppal am na ci négociation bi dem bay gërëm moom ak yeneen sëriñ di gërëm tubaab bi ci justice bi ñu fi indi ceddo yi dañ doon rey nit ñi ceddo yi nangam nangam loo xam ne la fekk ne loolu moom mun naa doon mun naa doon ayib fekkee ne xooluñu contexte bi ak ñoom fa ñu fa ñu fa ñu tolloon bay bay wax wala li ñuy waxati ay sos yi ngeen koy sosal dèjà yaa ngi commencé di saaga ak di di di parce que da ngaa da ngaa patiner moo tax mën naa continuer li may def liggéey ci bu ko defee nit ñi mën cee jariñu wax ba léegi lu ma man dégg ci mbir mi eh, tubaab bi moom ku ne xam ne lépp dañ ko bind accusé de réception bi indi ma ko laaj naa la ko benn beneen bi mooy eh, ci biir lettre bi yéen ñi koy saxal da ngeen ci jàpp ni sëñ bi dafa wax ni dafa feebar suñ bi daa feebar parce que changement de climat bi moo ko jàpp <laughs> changement de climat bi moo ko jàpp <laughs> pourtant fa mu doon moo gën a tàng fi mu ñëw moo ko jàpp ba mu feebar mu wax ni daanaka su ma doxee tuuti sax damay feebar damay sonn damay nangam te nag jàpp loolu ci koor la woon nag kon ku feebar moom xanaa du woor man kaa min ko mari dana wala safarin fa iddatu xam na ne moom kon bu feebaree kon wër sa woor sëñ bi mi ngi déparé foofu premier ramadan jóge ndar jëm Louga foofa la ko suñ Mouhamadul Bachir fekk ndax booba fekk na moom gisee gudda suñ Bachir ndax suñ Bachir ginnaawam la feeñ bi mu ñëwee ndar fan lañ ko indi indilee suñ Bachir li jaay suñ Bachir indil ko ko foofa sëñ bi foofa la ko gisee moom suñ Bachir jó jógee bi mu jógee luga mu dem Cissé jóge fa dem Sirélo bisub samedi 5 Ramadan lépp ci koor gi de jógee fa dem. foofa la foofa la passé passé il fa la toog vingt cinq jours yi bu fekkee dañoo war trente jours ma ngi fa toog vingt euh, vingt quatre jours bu fekkee ne vingt cinq jours bu fekkee dañoo war mooy trente jours ma ngi fa toog vingt quatre jours ndax le cinq ramadan la fa dem fa la ko ir gi fekk ba mu fa jógee fa la dem kër ga Galaay Jóob jullee fa timis ak gée daal di àgg Makka baabu ba mu jógee Makka baabu quatre shawal dem Mbàkke Kajoor ba tey Mbàkke Kajoor googa dañ koy màggal ak màggal gu mag a mag mag Mbàkke Kajoor googa nga dem waaw ku feebar nan lay mane lii ku feebar ba boo doxee boo doxee tuuti mën a daanu nan ngay woor di def lii nii Mbàkke Kajoor googu màggal ga dañ ko istuwaaral ba tey néegi ba mu fa dëkkoon ma nga fa ba tey nit ñi xam ko di fa dem di ko ziyaare ji ba mu fa jógee ba mu fa jógee la dem Kër ma Xari Jóob jógee Kër Masamba Xari Jóob dem ñaxal waa ñaxal xam nañ li may wax nekk koo xam ne dara jotu ko mu toog fa daanaka lu jigee fukki fan ko manqué tuuti daal di dem kër ma dem ba xëri ba mu jógee kër ma dem ba xëri fa la dem Daaru Salaam ci la ñëwee Daaru Salaam ñu ganale ko fa ngan gu rëy maam si Anta ganale ko fa ngan gu rëy rëy rëy rëy ñëpp gis sëñ bi dara jotu ko lu wakku tub dërëm wakk ko benn séer manqué wut ci ma kon léegi nan ngay waxee ni kon nan la ñuy waxee ci leetar mi sëñ dafa wax ne damaa feebaroon ba mënumaa dox te booba histoire saxal na ni lii mën na wax ay histoire la yoo xam ne dañ ko bind ñu xam ko boo demee ci archive ne sëñ la jógee premier ramadan la jógee Ndar jaar Louga jaar euh, suñu basir fekk fa mu jaar Cissé jaar Sirelo bisu samedi 5 fa dem kër kër Galaay Diop jógee fa julli fanaan Màkka Baabu 4 Shawal mu dem Mbàkke Kajoor ñu ko fa mu jógee fa léegi fa nekkoon ñëpp xam ko ba léegi ko siyaare ah mu jógee fa dem kër Masamba Xari Diop jóge fa dem ñaxal dara lu ëkkutu dara mu ëkk mu jóge fa toog fa fukki fan wala lu manqué tuuti dem kër ma dem ba xëri yii ma lay wax seeni maam ñi ngi fi seeni sët ba tey di leen xam xam ni sëñ bi jaar na fa jóge fa dem Daaru Salaam ku feebar bay daanu nan ngay mane lii kon suñ nan lay waxee nan lay defee lii ba pare di wax tubaab bi naan ko dama feebar bay daanu am tubaab bi amul woon information ci lettre bi bu sëñ bi bindee lu amul tubaab bi du ko xam wax nga ne Paul Marty dafa noona woon sëñ Touba mu dem ba ci mujj gi daal di xam sëñ Touba tey léegi pour marti livre yi nga xam ne moom la bind di wax ci sëñ Touba kañ la ko bind léegi tontuma ci loolu ban at lu Paul Marty bind téere yooyu encore nu fois Paul Marty yow yaa wax ne mu bind lettre bi waxuma la ko tey waxuma la ko suba lettre yi ci archive ya sëñ Touba ma ko bind yow nag doo jël say mbir yoo xam ne yaa koy wax saxi bopp daal di cay tabax bëgg caa defi argument di wax Paul Marty waxuma la fenn daa bind benn lettre ko sëñ amul benn historien amul benn benn benn benn benn benn koo xam ne historien la bu nekkut murit wala boog ñay bind ci murit daal def yu bari ñooy historien di wax ci Paul Marty amul kenn ci boo xam ne spécialiste la bu ñëw daal di remettre en cause Paul Marty ne day feneen Sëñ Tuubaa mën ngaa remettre nag di en cause ne lii wérut la wérut waaye day feneen Sëñ Tuubaa wala dafa indi archive yu baaxut loolu amut ta wérut a wérut fenn léegi laaj bi nga laaj ndax am na fu Sëñ Tuubaa bind euh, tubaab bi daal di bind ne wassalaamu ala man ittabal huda sëñ bi dañoo nekk ci condition ne sëñ bi da doon yërëmtalu xam nga loolu nga déggut ku yërëmtalu nag bëgg ñu yërëm la da nga am di nga changer uslub ak na nga doon waxee ànd ak beneen mbir moo yow li ngay bind li ngay tudd ci lettre da nga koy war di date nañu date bii la Sëñ Tuubaa mën naa bindawul lettre ci aw date date ba ca topp benn ñëw mu daal di waxee mu waxee neneen kon Sëñ Tuubaa bindoon na lettre daal ne ko jotuma saw ndaw loolu dafa wuuteeg mu bindaat beneen lettre ginnaaw ba mu jotee ndaw wala jot naa sa ndaw mu bindaat beneen lettre ginnaaw ba mu jotee ndaw sëñ bi lii du da ngay ñëw dat ne dat nangam la dat nangam lettre bii nii kon ba mu ne jot naa sa ndaw ak ba mu ne jotuma sak ndaw même date bi la même weer bi la même jour bi la kon ñaari am bu ci yorut waaye su fekkee sax tey jii laa bind leen ne jot naa sa ndaw su ma bindee ne jotuma sa ndaw loolu noo mën a weddee ba ba ci des te bis yi kon li ngay wax nii teguwut ci benn ci benn ci benn ci benn xam-xam soo ma mayee nag ma ñëw léegi taaj léegi yaa ngi laaj nga noonu laaj may tontu ngay laaj may tont léegi nag tontul yow samay laaj yaa nga wax lu am solo nga ne Paul Marty moom dafa nekkoon daaw noonoo sëñ bi mujj mu dem ba xam ne sëñ bi ko baax la tayib du ma la laaj foo ko teg ndax amu foo ko teg da ngay wax di sànni noonu rek mais léegi sëñ Paul Marty moom téere yi mbind kañ la ko bind léegi su boobaa rek ñu delluwaat yi téere yooyu ñu xool jamono ji nga xam ne ci la noonu suñ Tuubaa la wala jamono ji mu duggee suñ Tuubaa kon kay mbir bi lébaab léegi mu jeex kon xam ne la mu ci bind moom ni ko da koo sosal su fekkee ba ko bindee mooy ginnaaw ba nga xam ne bëgg na suñ xam nga li am solo mooy yow euh, nga war a bàyyi xel xam ko mooy am na yu bari yu ma a laaj tontuwoo ko wala da nga koy tontoo du nekk loo xam ne dana convaincre ni lay déglu yow problème bi du problème mu gëstu boobu ba léegi yow ñaar nga fi indi rawaan mbay ak euh, Omar Ba te man indil naa la Omar Ba te dégg naa ci ngay baase wu te indil naa la écrit ba tey te it da ngaa indi taarix milaadi yi wala bu taarix raqmi taarix boo xam ne raqmi la boobu loolu tontuwoo ma ci ba tey Sëñ Tuubaa indil ma fenn ci am bindam wala ci ay xasaayidam foo xam bind bind na fa ankar mbaa mu bind fa ab date boo xam te ni day wax ni mille neuf cent wala mille quatre cent nangam amul doo ko gis bi képp nga ci am beneen bi mooy beneen bi mooy yow li nga gëm jàng ko yow ci diine mooy nee nga nee nañ lii wóor na wala wóor nit ñaa koy wax man gëm naa ni wóor leetar bi sëñ bi bind ko yow nga gëm ni sëñ bee ko bind waaye léegi demal nga xool sëriñ bi lim bind ci ay bayit demal nga xool junniy bayit rek waxuma la junniy xasida de waaye junniy bayit nga dem xool fan la nga ci mën a gis sëñ bi négocier akub tubaab sëñ bi la nga gis ci moom mooy lu wex xatt ci tubaab bi alwaylu alwaylu kulle alwayli linnasaara waylun liman maala ila nasaara yemul sax si ni alkane ñoom ñoo ko de waaye ku jeng jëm ci ñoom képp waaw nan lay waxee loolu parce que wéet boo xam di jeng di jëm ci ah kay li ngay wax ni li ngay wax ni li ngay wax ni maanaam sëñ bi négocier tubaab yi du ayib yow yaa ko jàppe du ayib waaye man ayib laa ko jàppe ndax sëñ bi ci boppam moo njëkk a wax ni loolu ayib la ci man waaw uh-huh. xam nga waaw xam nga ñàkk xam ñàkk xam rek moo la jàpp ñàkk xam moo la jàpp ndax ndax yow ndax yow sa sëriñ sa sëriñ muy Ahmad Lo wala boog sa sëriñ la bokk téere bi ma jàngee tawxiid man muy masalikul jinaan moom pourtant moom la jàngee tawxiid moom la si jàngee tawxiid te la ca suñ Tuubaa wax moom la ca suñ Tuubaa wax moom maam moom bu bu bu kiyee bu bu la ca suñ Tuubaa wax bu négocier rek weddi boppam muy masalikul jinaan Masaalikul Jinaan boobu Ahmad Lo sëb sëriñ ci la njëkk jàng tawhid te Sëriñ Tuubaa da caa wax lu leer naññi yi Tuubaa da caa wax lu leer yi kon bu wëlbatiku waatee di négocier day weddi boppam ta ci am mbindam man gisuma fi gisuma fi gisuma fi loolu boobu audio bi nga xam te ni ci la ko demal nga xool ko am na mbokk mu ko dugal ci groupe mu leer naññi am na mu ko dugal ci groupe bi mu ah, bi vidéo Ahmad loolu demal xool ko am na mbokk mu ko dugal ci suba ñu yokk ca xool ko bu baax a baax maanaam daal ku la dégg xam ni ku la dégg xam ni yow xamoo li ngay wax xamoo fi ngay taxaw ndax li am solo mooy boo taxawee ci benn point rek ci archive nangam archive nangam te yow archive yi sax xooloo ko far ci téere Seydina Omar ba képp ngay dem boo ci taxawee yëf yi du leer léegi nañ ko na ci lettre bi xam bi mooy ndax lettre bi sëriñ bi moo ko bind wala bind ko man indi naa samay argument yi waaye sëriñ bi bind ko yow ba tey waxagoo benn

xamoo ndax luñ luñ xamoo ndax lettre bi dafoo di ci wala dafoo bind xamoo tamit na muy datee xamoo na muy woowee ay tur kon yow sa ñàkk ragal yàlla moo la yóbbu ci ngay taxaw naan sëñ bi ko bind kon waroon ngaa ci yooyu yëpp doo ci wax léegi bi mu delsee ci la position yi sensé te bi mu delsee mu taalif ay xasaayid xam yoo xam te ni position bi changé wu ci xasaayid yooyu fa ngay xamee ni nga mën a basé wu ni mooy lettre bi nga kenn si wu ko lettre bi képp te nga mën a signé basé wu ci ni sëñ bi position bi daa changé lettre bi képp te nga mën a basé wu pour wax loolu waaye xasaayit yi mu bind ginnaaw beeg yooyu yëpp nga xam te ni ay naqar rek la ci tubaab yi di gis ak mbooloo mi ko toppaat ginnaaw bi mbooloo mi ñëwaat ci moom ginnaaw bi tubaab bi woo ko bëgg a négocier moom mu bañaat ak bañ ko bëggee takkal médaille mu xam ne du takk ab ab croix yooyu yëpp <laughs> loolu ci mujj gi la kuy négocier kay xanaa da nga d'accord loolu da nga bi da nga d'accord nangam ak nangam waaye yow nunguwooyee yëpp ba pare nga yow nga basé wu ci lettre bi si doon négocier moom ñi ngi indi ay xasiida ak sëñ bi genn xasiida wala benn bayit bu sëñ bi bind di wane ne damay négocier tubaab bi te sëñ bi moom ku ne xam ne am bindam li ci ëppoon mooy nasmu moo ci ëppoon wala mansuuma ay way moo ci indi ma benn bayitu sëñ tubaab boo xam ne ci négocier tubaab yi doo ko mos a gis ci àddina doo ko mos a indi ci kaw suuf tamit xaadi bi sow liiral ñu lettre bi ba pare lettre bi ñu ko ba pare léegi sa question yi nga waat ma ko bu nekk dama koy wàcce ci une seconde xam nga da ngaa tontu la xam nga naan ko amut foo fanaan ak ku ragal ci nekk jël buntu bi du leen boole da ngay lire ba pare lettre bi mu wàcce liiral ñu ko su ko liiree ba pare Xaadim Buso sa question yi nga xam ne nga jàpp tontu moom nga laajal ma ko benn par benn da ngay wàcc audio une seconde laaj tontul laaj tontul soo pare nag Xaadim Buso ba nga laaj ba pare nag léegi nga bàyyi ma nag man laaj la benn par benn indil la benn par benn nga may tontu xam loolu moom loolu neex na di man ko bëgg dëgg leer moom dina dina ko nangu. non non yow indi lettre bi. yaa indi leetar bi liir ko liir ko donte leetar bi ay siyax yu bari ngeen ci am yéen mais liir ko liir ko yow man duma ko liir soo ko liiree ba pare bala ngaa boo defee ñetti pa ñetti phrase rek nopp taxawal taxawal boo taxawee rek képp ku képp ku sukkandiku ci say wax dana xam ne sëñ bi bindul leetar bi yow liir ko boo ko liiree boo liiree ñetti ñetti seconde boo ko liiree ba juróomi seconde boo ko liiree ba liir ñetti phrase dinaa la décortiquer nga xam ne sëñ bi bindul bi waaw ndax sëñ tubaab du màggal tubaab mukk sëñ Tuubaa du màggal tubaab mukk lam leen wax ma alwaylu kulla wayli nasaara rek la leen di wax waylu li man maa ila nasaara lay wax wala muñ leen bàyyi leen taslis bi te xam ni yàlla képp fi nekk benn yàlla fi nekk loolu la sëñ bi daa bind tubaab bi waaw yow liir ko léegi bu fekkee wasalaamu ala man tamal hudaa gi nekk ci mujj gi moo tax ngay wax ku ko di gis xam ni dañ ko cee idraaj ndax li tax mooy bi leetar yi muy bind da def si njëlbeen gi def ko ci mujj gi la preuve mooy leetar bala indil man da koo wax ci njëlbeen wax ko ci mujj te bii ci njëlbeen gi waxu ci wasalaam amay tabaal huda waaye dafa màggal tubaab bi wan ko ko yaa nekk amirul umara wa xaakimul xukama la ko wax est ce que kon loolu est ce xel nangu na sëñ bi bind lool ci njëlbeen gi ñëw ba ci mujj gi man wasalaam amay tabaal huda day tanaaqut kon day tanaaqut day tanaaqut day day tanaaqut ndax mënu koo mënu koo màggal ci njëlbeenu leetar bi xasaat ko ci mujj gi leetar bi te ku ne xam ne wasalaam amay tabaal huda aw xas la aw xas am solo mooy li am solo mooy lettre bi moom man li may décortiquer mooy sëñ bi bind ko samay argument la bu bul xool ñaari argument wala ñett rek te ma indi lu ma téeméeri argument wala fukki xool ci benn rek bëgg caa focus bëgg caa toog bëgg caa fanaan loolu du maa nekk abadan laa yumkin léegi njël bennu lettre bi sëñ bi nga wax wala ila hakimil hukama dem ba ca mujj gi mu naan wasalaama indil man da koo wax ci njël benn ki wax ko ca mujj gi waaw na sax baa ko taxiyati wa ijlal taxiyati attahiya wal ijlal la indi li ñuy jox suñu borom subhanahu wa taala est ce que yow est ce que yow sa damir yow Fadal est sa damir may na la nga mën a jàpp jàpp loo non non non suñ Tuubaa est ce jàpp ci sa damir yow sa damir maanaam sa sa senti sa sentiment est ce may na la nga jàpp ni sëñ bi dina wax ak tubaab naan ko di ko ij naan ko ijlal ak euh, tahiya laajal sëb ñëw laaj ko Ahmad Lo wala nga laaj ko Xalil Lo wala nga laaj ko ku la neex ci say machaayix ndax ñoom seen damir may na leen ñu gëm ni Serigne Touba dana nuyu ab tubaab di jëfandikoo ijlaal ak tanzim ak taxiya abadan laaj leen ñoom ñu jàng ñu xam suñ Touba jàngal na leen ay téereen ñu jàng ay tere suñ Touba ci kippaaru ron kippaaru Serigne Touba laaj leen ñoom yow xëy na amoo xam-xam booba te amoo damir booba waaye laaj say mbokki wahabis yu mag yi kilifa yu mag yi ngeen yaakaar laaj leen ba xam ñoom seen damir may na leen ñoom mën nañoo ci yàlla ne Serigne Touba dana bind di màggal ab tubaab xanaa ba pare ba pare bangeen ba ciy dolli mooy kuy négocier mën ngaa jëfandikoo yeneen baat yi bokkut ak di màggal di ki naa koy yàlla di ko jox ci rub yàlla négocier ko yomb na moom kay bu doon négocier bu ñu woon tubaab bi bu ñu woon tubaab bi man daal léegi ànd naa ak yéen ci li ngeen ànd léegi dematuma waaye lu mu fay nekk nag damaa feebaroon négocier kay jërul damaa feebaroon loolu mooy li gën a leer négocier ak tubaab bi jërul damaa feebaroon ak damaa nangamoon feebar ba pare woor négocier tubaab bi kay daan ko rek léegi daal amul problème li ngeen bëgg léegi dinaa ko def mu leer bu négocier woon ñu bàyyi ko Sëñ Tuubaa bu négocié woon duñ ko def résidence surveillée ci Diourbel bu risi bu Sëñ ba bu négocié woon du toog Diourbel ñu koy defal résidence surveillée abadan laa yumkin tubaab bi de kon da koy bàyyi bu ñibbisi ndax de sax tubaab Sëñ Tuubaa bu négocié woon sax du génn ndar du génn ndar dem feneen ah, beneen bi mooy beneen bi mooy borom mbooloo la borom mbooloo la bu négocié woon day wax ko mbooloo leen ah négocié na ma tubaab bi na ngeen ko xam na ngeen ko bàyyi xel dañu ko bàyyi xel ba mu ba mu yónnee maam Thierno maam Thierno demaat dem te tubaab ba xusoo na ba ak dëgër ga maam Thierno waxee tubaab ba suñu tubaab ba négocié woon maam Thierno du def loolu beneen mooy li may waxaat bàyyi ko naan yaay buur buur yeeg nangam nangam bi jërul loolu négocier jërul loolu du police bu la nga bëgg a négocier moom te yoroo permis doo fa nekk ko yaay chef baag yaay nangam ne ko rek ah man de dama dama dama rek dimbali ma ma jàll lan nga na yaay amirul umara xaakimul xukama tahiyatun yooyu ni ko sëñ bi di jëfandikoo ngir négocier buy négocier mën naa jëfandikoo baat yu gën a oyof yooyu ba pare tubaab bi reconnaître li mu wax ba dafay bàyyi mu ñibbiwaat këram sëñ tubaab bu négocier woon bu fekkoon ci ak mujjëm yow da nga wax ci ak mujjëm nga wax bu négocier woon ci ak mujjëm kon du toog jurbel tuubaa tuubaa lay toog parce que kon dañ ko jële jurbel in ko tuubaa mu ñibbisi mais sëñ tubaab ñibbisi woon bi fi bàyyi ko la ñibbisi tuubaa njaareem dañ ko tubaab bi bu négocié woon tubaab bàyyi ko mu ñëw mais bàyyiwu ko mu ñëw da ko bàyyi njëriñam def ko résidence surveillée sëñ tubaab mos a négocié tubaab. loolu lay digalaat nga delluwaat ca matérialiste yi delluwaat ca sëriñ sa nga doon wax nga jàngalaat la diine te maa ngi dañ nag maa ngi maa ngi désolidarisé setal sëñ Tuuba ba mu set wecc ci ñàkk alluwe gii nii ak ñàkk xam-xam gi nga wane ci wax ji nga wax mooy sëriñ Tuuba. sagam bind na ci xas ay xasaayidam di ŋàññe nasaara yi loolu day tax nag ne du mës a négocier ñoom la fekk ne loolu ñàkk xam-xam féete ko kaw te suñ suba jàpp naa ne doxee muus su doxee noonu jàpp naa ne xam a moom weesu na foofu ndaxte lii di ay yéefa daat lay noot nga am loo négocier ak ñoom fekk weesuwul xadd bi sharia amut lu ko lislam dàkkee moo tax yàlla sonal naan laa yattaxidi almuminuuna alkafirina awliyaa min duni almuminin wa man yafal dalik fa laysa min allahi fi shay illa illa an tattaquu minhum tuqaa wa yuxadirukum allahu nafsah wa ila allahi almasir loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi xam ne mooy sa sëriñu sëriñ ŋàññi yéefar ya xam seen bon mosu koo tere mu daal di négocier ak ñoom ca bi Hudaybiya ba nangu mbir yoo xam ne doo du ko doon nangu su fekkoon ne am na doole du taxoon mu bañ koo mën a nangu ba sax su nit jóge woon Makka fàkkee fa nekkub jullit tuub da ko waroon a delloo waaye su ab jullit jóge woon Médine dem Makka ñoom duñ ko delloo yonte bi nangu ko xaaral nga may wax niveau bu toll nii naan ma doon ŋaññe doon ŋaññe yéefar yi kon looloo tax mun te négocier ak ñoom loolu mun naa doon dalil pour weddi pour weddi lii rawatina comme dama ñëw sa la fa tiim la yi nga gis njëla jiitu ñëpp tubaab bi saagal galeen ñoo xam ne fekkee wilaaya woote woon nañ ko Omar Fouta yi su fekkee arm amoon nañ ko la Joor Jóob keneen ak keneen ñëpp tubaab bi saagal galeen nga gis leen nga négocier nga ñëw naan loolu dafa wuteeg la muy wax da leen di da leen doon ngaañ à chaque ne lii damaa jàppoon ni mooy problème bi mais dafa mel tamit ci bu rëy moo wax ni raamoo masiri ila jurbel la daal la sasin law aayanoo sirrama fi ma na tubaab yi addum la dañ maa bëggoon yóbbu njaareem ba jël ma ndax jàpp buñ ma yóbboo njaareem mbooloo mi jëm ci man danañ danañ dellu ginnaaw wala man dinaa dellu ginnaaw ndax njëriñ njëriñ fu viile laa fu mel noonu nee na bu ñu xamoon secret bi suñ borom nëbb ci biir yóbbu gi ñu ma yóbbu njëriñ kon duñ ma fa yóbbu ndax fa ñu ma yóbbu njëriñ fa la fi gën a jollee waaye léegi <laughs> xam nga yooyu nee nga ci ak mu jëm la négocier na dafa metti woon ñu yóbbu ko mu metti lam fa dañ metti mu sonn bi ñëwee moo tax bi ñu ko bëggee yóbbuwaat mu négocier tubaab bi dalaa mos a wax ne dafa bëggoon yóbbuwaat bi est-ce que fenn ci archive tubaab bi wax ne sëñ bi dañ yóbbuwaat foo xam ne sëñ bi moo négocier tax ñu bàyyi ko tubaab bi moo moo moo moo libéré sëñ bi jël ko def ko libéré ba tubaab léegi bu fekkoon négocier na wax naa la ko léegi dinaa ko dinaa ko waxaat ndax boobu dafa am solo bu fekkoon négocier na Touba gii lay dellusiwaat wala Darou Salaam yar ak njabootam continuité lam nekkoon wala boog sax bu négocier xanaa mu mu teggi tànkam sax sëñ Touba bu négocier woon dana teggi tànkam xanaa ni muy yaree mos a soppiku ci njëlbeenu demam ak mujj demam ñoo bokk lu ñuy yaree ni muy jàngalee mos a soppiku ni muy ni muy ni muy toppatoo taalibe yi mos a mos kon xanaa dafa dafa négocier tubaab ba pare xanaa ah, kon tubaab bàyyi ko ci la mu nekkoon kon dafa négocier tubaab ba pare tubaab bàyyi ko ci la mu nekkoon bu négocier kay kon tubaab bi xanaa ah, du ko bàyyi ci la mu nekkoon day kon day changé méthode te xanaa négocier xanaa ah, nekk benn yoon rek xanaa du négocier benn ci sa lettre bi nga indi rek yaa ngi rawaan waaye xanaa kon day continuer di négocier tubaab bi di jëflante moom jëflante bu rafet waaye tubaab bi mu si jëflante suñu tubaab jëflante bu rafet même ci njëriñ même ci njëriñ mu si jëflante moom jëflante bu rafet am na benn bis képp rek li koy gën a mooy suñ tubaab toog ba mu yàgg mu bëgg dem mu bëgg a dem xuru xuru mbàkke ñu ni ko résidence surveillée nga nekk dañ ko boole suñu balla coro mu dem xuru mbàkke di siyaare maam barab yi bàyyi yi waajuram mu jigéen jaaroon muy soxna jaara ama muy dem poroxaan xuru mbàkke ba mu ba jant bi bëgg a ba ba jant bi bëgg a so la ñibbi si waat njaareem bu fekkoon dafa négocier ñoom bañ bàyyi ko kon dañ koy bàyyi du nekk di mukk résidence surveillée buy dem fenn du leen ma du am autorisation du am autorisation du am dara waaye ñàkk a négocier ak ñoom moo tax ñu continuer def ko résidence sur waaye bàyyi ko biir njaarim ndax xamatuñ ni ñu koy def ndax génne nañ ko jaarale ko fépp te xat dëmbut ci moom musta feebar musta am gàllankoor musta am benn cër bu wàññi ci moom loolu nag di karaama ci karaamaatul awliya yi yàlla defal ko ko tax mu ñëw njaareem ñu def ko résidence surveillée ngir ñàkk a ak moom ci ay kaddu bu juboo woon ak ñoom ci ay kaddu duñ ko indiwaat njaareem di ko bàyyi dañ ko indiwaat Tuubaa gi mu def ci njimbi si xaadimu soo lii la lettre liira lettre bi ndax da nga ne lettre bi amut wasalaamu ala man ittabal huda wante su nekkul woon sax du tekki dara waaye da nga ne nekku ci ref wax ko répété ko répété ko répété ko répété léegi liira ñu lettre bi ne léegi man génn nga ci loolu li ngay wax nii mooy day wane man dama jàppoon xam nga si histoire sëñ Tuubaa mais xamoo histoire sëñ Tuubaa en fait xamoo ko boog tubaab bi xataa sax ñu ne ko ñi nga xam la nekkal yow fa ngay sukkandiku jàpp naa ne seen xam-xam yooyu suñ lii sëñ Tuubaa musta def lenn loo xam ne dafay gàllankoor tubaab bi lu dut ne tubaab bi ñoom ñoo ko musta wóolu li doonoon problème tubaab bi bañ koy yóbbu fële nga xam ne mooy Gabon bind nañ ko mu leer ci archive yi bañ ko fay yóbbu di tax yóbbu ko nekkoon pour rey ko de dañ ko foon yóbbu ndax gis nañ ne nit ñaa ngi koy topp lu baree bare ñu nañ ko yóbbu ba mbiram daal di ñu fàtte ko ñu yóbbu ko bañ ko dellusee ñu gis ne mbir ma dafa gën a yokk nag far xam nga ay bawol bawol moom bawol bawol daa ragal géej ñaari mbir la ragal kaso géej ñu yóbbu ko jaarale ko ci géej kaso mu dellusi loolu moom miracle bu rëy la ca bawol ñëpp nag gars yi di fàqee fu nekk tubaab bi lam doon bañ xam na ne bu baax ni kii defu dara donte ay nit ñu ngi doon fon ay nit ñu ngi doon rambaaj ay nit ñu ne leen tubaab bi xamoon na ne defu dara dañ koo tuumaal tubaab bi loolu nag waxoon na la fii la loi du plus fort et la meilleure tubaab bi su la bëggee takkal dara la koy takkal da ko wóoluwut rek mais xam na bu baax ni ki defu dara waaye nag intervention bi amoon ak nit ñi di rambaaj di wax sëriñam ba nekk ca gannaar naar yi ngeen di bañ daal di intervenir moom xam ne tubaab bi kii da koo bëgg a sàkkalaat taxe intervenir bi ñu lettre lettre ba si maa ngeen moom su neexee ma liiral lu ko indi ay garantie yóbbu ko tubaab bi tamit def ay garantie yu leer wax ci si daa wax ko bu baax a baax a baax yu bari du ma ko tolère nag su ko defaatee mu dem fa toog fa aw diir tàmbale nag gën a tee am na aw lettre mu mbind boo xam ne archive fi ñu archivé ko muy wax li nga xam ne moom mooy ndongoom yi mu leen di xamal ne taalibe ba leen seen caaxaat yi bu leen mu dugalati loolu mooy tënk lettre ma ñu indiwaat ko waaye bañ ko indee ba tey bëgguñu ba tey influence am gën a rëy xam nañu baax léegi jum nañu def ko daal di koy yóbbu jum nañu ci yenn bi ñu ko doon tuumal xam nañu amut waaye ba tey nag bëgguñu ko fee bàyyi mu am liberté mbiri xëy ëpp leen loxo ñu jël ko daal di koy def résidence surveillée ñu bëgg a tabax mu joxe cinq cent mille tubaab bi jox na sëñ tubaab jox na tubaab cinq cent mille francs mi ngi ci archive yi seen i say sëriñ koy tudd sax loolu di ko damoo jox na leen beneen xaalis ñu bëgg dem guerre mu ñu dem ay do ay taalibeem dem ba mu demee Gabon sax doon nañ ko Balla Mbàkke sëñ Balla Mbàkke bind na lettre lettre maa ngi ak moom ak Chili pour mën koo seeti tubaab dañ ko may mu seeti ko Congo mu dem ay Ibra Fall ci boppam ñu jàppoon ab nit la koo xam ne moo leen a mu xel dafa doon di jàpp ko Ibra Fall ci boppam négocier na te daa jege woon tubaab bi lool te lettres yi ñëw ci jamono ji ñëw mooy ci Ibra Fall la ñëw doon négocier <laughs> ci lu bari ñu yóbbu ko résidence surveillée nga bëgguñu mbir yi ba mu bindu lettre yónni ko gouverneur bi pour ñu daal koy autoriser loolu yëpp préparé na ko di ko autoriser pour mu may leen pour mu may ko mu mu tabax jàkka ñu may ko pour mu tabax jàkka tubaab ba bañ lettre yaa ngi Orban mi ngi wax ni indi na Robinson indi na ko keneen ak keneen indi na ko te archive lan lay delloo ba mu faatoo archive yaa ngi fi tubaab bi ne nañ ko yóbbu Touba ci secret ay njabootam négocier d'accord yóbbu ko Touba secret tubaab bi saa bu ñu demee ba amaat ba mën ko indiwaat Jurbel indi ko fa suural ko fa waaye loolu xaw ma a am na wala amut loolu yëpp archive dañ koo dind ngeen ne déet waaye kenn nga koy waxee ku fi wax rek nga leen tukkal àdduna yéen a jël mbir yooyu def ko ayib yéen a koy def lu leen neex mais histoire nii la ñëwee nii la nii la nii la dikkee su fekkee na ngaa jàpp ne loolu ayib la jàpp suñ dam ayib te jàpp ne loolu histoire am na waaye du ayib nag damay tër histoire ba koog la mu la mu gëm loolu si gëm gëm la mais lenn mënoo leen ko fee dindi ci li nga xam ne historiens yi indi nañ ko ci histoire wu Serigne Touba ak euh, ak tubaab bi te li ma fàtte bari na sax. waaw xam nga xam nga li nga wax ni li nga wax nii dëgg la maanaam négocier ak tubaab bi li nga wax nii du ayib ci yow du ayib waaye da ngaa xamul méthode Serigne Touba moo tax dafa am yoo xam te ni daf dafa jàppoon ni moom war a am mayu ko ko ak sàmm moom daf daf waaw li ñuy wax naan. xasanaatul eh, abrar sayyiaatul muqarrabin qaayida boobu la suñ tubaa jàppoon moo tax yu baree baree baree bari mu tere woon ko boppam ndax bañoon mu nekk zariya di ko def loolu xaraam mu nekk zariya di ko def loolu xaraam am na ay kilifa yu fi nekkoon yoo xam te nii loola kenn doon ci yedd ndax maanaam lañ def du ak weddi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman la yàlla wax ay saxaaba sax amoon nañ ci yoo xamante ni nii bañ leen forcé dañoo wax te du gàcce ñoom ndax du ayib ci ñoom waaye waraa su leen su leen waraa seen waraa bu leen yóbbu woon lii nga lii ma lay wax nii Ahmad Lo mos na ko wax docteur Mouhamed Lo su leen seen waraa yóbbu woon ci ñu rey leen duñ xaru kenn du leen wax dañoo bu fekkoon ñoom yóbbu nañ bakkanam kenn du wax ni daa xaru waaye waraa am moo ko mayit mu négocier ak ab tubaab si nga bëgg a dugg baaxul génnaat fi li ngay wax naan négocier ak tubaab du ayib Sëñ Tuubaa ayib la ci moom parce que daf ko araama ci boppam wala udaani ka shuaraa yi suñ tubaa nee na du ma négocier du ma jige-jigelu buur du ma def ni waykat yi def dugguma ci loolu du ma ko mos a def loolu la wax te moom mi ngay tuumaan leetar bi daa wax lu leer nañ ñi nee ku leen wax ni man li ngeen nekk nekkuma ci li ma nekk nekku leen te te duñ di juboo ci ay point maag yéen xam leen ni kooka waxul dëgg loolu suñ ko suñ tubaa am na juróomi téeréem yoo xam te ni daf caa tere loolu daf caa tere loolu am na boo xam ne sax mañ ngi wax ilhamu salaam wa taawaahum bi zina wa sariqa wa gayri dayni min fi'alil fasaqa di wax maam ñii jigéen tubaab bi ak ñii jigéen buur yi di leen leen leen leen leen leen yedd leen xamal li ngeen def musiba la buñ gisee ab buur wa minhum man am nu ko waxee ne buñ gisee ab buur jàpp ni malaakam suñ borom la yaxsabuhu min malaki rahmaani buñ gisee ab buur képp jàpp ni malaakam suñ borom la subhanahu wa taala loolu moom mën naa wax loolu pare ñëwaat di di bokkaat ci lii xel nangu ko loolu waxuma ne sax ku ragalul yàlla waaye koo xamante nii sax da ngaa am ay principe képp nit ko am ay principe képp rek ci ñi mu yar képp ñi ci am ay principe maanaam loolu duñu ko def te ñëpp am principe ñi yow mii képp boo amee ay principe doo bañ dara di ko bëggaat abadan yonente bi alayhi salaam nee na ab julit bu baax du wàcc mukk di ko lekkaat ab kël bu rek mooy wàcc di ko lekkaat te te beneen mooy Cheikh Omar Diagne mi nga xam te ni yow daanaka say wax ku dégg xam ci moom ngay sukkandiku te nit bu xasee wax dara ba pare amu ko xanaa Buxaari bi sot sëriñ Buxaari ba mu fekkee waaje waaje yorug yorug leget di ndax ay bëy dafa delluwaat ni ko du ma jël sa hadis Cheikh Omar Diagne ni ngay sukkandiku ci lu app ji say wax wala rawaan mbay ñoom dañoo tam dañoo def tanaaxut seen i wax ñii dañoo def tanaaxut moom nee na woon Cheikh Omar képp moo def résistance ah waxoon na loolu donte weddiwaat na wax ja am na moom lu muy dooleel am na fu mu far kooku nag bu fekkee dafa far foofa wala mu lu mel noonu mu ñëwaat di. ok euh, suñu adhérent lettre bi Fadel indi du lettre bu baax lettre bu baax bi liir naa ko Seydina Omar Diagne indi na ko ci baxtoom maa ngi koy dugal léegi mii ngeen gis ko insha allahu tabaraka wa taala lettre bi lettre buñ fent la du lettre bu baax lettre bi baax maa ngi koy dugal indi ko muy ab mu xaq ngeen gis ko xam ni bii nii buñ fent la waaye bi Seydina Omar Diagne bind ci origine mbind mi mu nekk en français defal ko defal lépp ñëw ci ñu traduiraat ko suñu Issa Gueye traduiraat ko ci ak mu traduiraat ko te Assalaamy Ameth Mansour ci ñaari yoon lettre boobu maa ngi ko dugal léegi nga gis ko incha allah. <laughs> lettre bu jaune man dinaa mos a bu jaune yow da ngay waxtaanee lettre bu jaune yow yow mii <laughs> lettre lettre jaune kay maa ngi koy maa ngi koy doon gis seen suñu xaatim nag wax dëgg yàlla. suñu <laughs> xaatim li ñuy waxtaanee xaaral mos léegi yow mës ngaa teg bët est-ce que mës ngaa jéem bët rek téere bi rawaan bay bind est-ce mës nga cee teg bët su fekkee waaw est-ce que yor nga ko si kër. kan mooy sëñ naa Omar Omar Diagne ah, tontu samay laaj léegi tontul samay laaj. jàpp naa ne jàpp naa ne dafa mel ni nga indi woon li nga yoroon yëpp indi nga ko de ndaxte léegi moom yàlla loo ñu indiwaat léegi say sëriñ ñuy wax ne lettre dañ ko sos loolu kay moo tax xaarim suuf léegi su fekkee mbir amatoo dara euh, su fekkee ndax une heure na une heure su fekkee amatoo dara loo indi amatoo laaj yu ma laaj nga tontu samay laaj euh, su fekkee daam laaj yu ma fàtte woon nga indi ma sa laaj yooyu ñu laaj di tontu ko ñu dem parce que du fi toog nag ba minuit rek euh, di tàppale ko. waaw dama jaaxal léegi itam da ngay débat da ngay dugal ay mbir ala kulli xam franchement guddi na si minuit treize jot na. xam naa li fi jot a wàcc mën nañ koo doyloo su fekkee ne Xaadim Buso amatul ay laaj yu ma laaj euh, ma laaj sama laaj su fekkee bëggul ton dañu daan arrêté fi débat bi ñu doyloo euh, lu fi lu <laughs> fi lu fi jot a wàcc am loolu fi wàcc waat ci ginnaaw gi loolu seen seen problème la euh, mbir jàpp naa ne leer na xanaa mënoon ne lu nangu ne sëñ bi moo bind moo bind lettre bi na nga dem wuti yeneen preuve yi wane bind ko saa bu ñu gisee ne bind ko ñoo xam ne kon <laughs> bind ko waaye fi nekk nii moom li ñu mën a jàpp moom mooy sëñ bi ko bind te loolu wutewul ak dara si ñu doon doxalee ay mbir yu bari yoo xam ne confirmé confirmé nañ ko. waaw kay suñu aadama li xoromu ci mbir mi li xoromu ci mbir mi mooy lettre bu jaune bi <laughs> maa ngi am léegi nii di gëstu waaye dindi nañ ko seen seenu YouTube biñ ko defoon supprimé nañ ko ci ndax xam nañ ni fa laa ñoom dindi nañ ko ci waaye teewut fexe naa ba am ko fexe naa ba am ko avant ñu koy dindi dindi nañ ko mais fexe naa ba am ko avant ñu koy dindi maa ngi lay woowaat maa ngi la. maa maa ngi war dama jàpp di sëñ bi hmm. fexe naa lettre bu zone bi fexe naa ba am ko din nañ ko seen seen seen YouTube bi pour wan la ni la <laughs> seen tappale seen tappale yi ñuy mais am naa lettre bi suñu aadama dinaa ko dugalaat léegi ni incha allah léegi nag li ma bëgg a dolli mooy li ma bëgg a dolliwaat mooy euh, dañoo waxoon sànq ci mbir mi continu ñu continué woon ci li ma njëkkoon a wax jàppoon li ma wax dafa jéem a dajji waaye amu ci lu mu teewal naan mbaaxaan naa am saxaloo ndax guddi dafa gis bëccëg jàpp ne da nga am ma ko bëccëg loolu laa jàppoon ma damaa jàpp ne da nga am ma sëñ Tuubaa gisul mbaaxaan bëccëg ko nangam ba tey indiloo ma loolu kon kon loolu day continué di validé ba tey beneen bi mooy li ñu wax nii euh, maanaam euh, gouverneur Thiès maanaam wowul sëñ bi ci leetar bi loolu lañ wax ndax dañoo wax ni kii bind ci turu sëñ bi dafa wax ni Euh, jotuma sa benn ndaw jotuma sa benn leetar loolu la wax mais li wér mooy <laughs> sëñ bi jot na leetar leetar leetar gu Thiès Alice le 2 mai 1903 suñu jot na ko 13 jours après après li ñuy wax bi après leetar bi ah 14 mai 1903 ah 14 mai 1903 la leetar bi wax sëñ bi mi ngi jot avant loolu date boobu le 2 mai la jot leetar bi maanaam 13 jours avant loolu buur bi di ko ci woo. commanda Thiès commanda Thiès di ko woo di woo sëñ bi sëñ bi tontu ko lettre bu ñagas mooy lettre bi may tontu bi ma indi woon nii lettre bi ci archive lañ ko jëlee archive nationale fa lañ ko jëlee ñu traduire ko en français français la woon maam ñu français bi lañ gis ñoom ci archive lañ gis tubaab bi ndax tubaab bi traduction français bi lay am Omar Ba indi na ko ci téeréem bi Ahmadou Bamba face au autorité coloniale indi na ko wax dëgg yàlla mooy gën a démontrer li ngay wax dara amu ci yéen seen leetar bi bind na ni sëñ bi nee na gisuma ndaw juduma lees maa ngi ñaan nag yéen mbokk yi bu ngeen di monté euh, document bi débat bi ngeen monté waale lii mu wax ni leetar bu zone leetar bu zone moo tax ma gaaw indiwaat ko ndax bala koo effacé ndax wóorul te mu effacé ko ngeen boole ci vidéo bi ñuy wax noonu bi ñuy décorté lettre bi ñoom seen bopp ñoom wax bi seen seen seen kii taan indil ma bi muy vingt huit secondes boobu nañu ko boole wàcc ci ci ci ci biir débat bi nit ñi mën a comprendre mën a am documentation xam ne wax bi si euh, las mooy seen biir kon lettre bu jaune li tax ma tudd ko loolu moo tax ma tudd lettre bu jaune bi nga lettre bu jaune loolu moo tax ma tudd ko kon euh, su ko defee kon ñetteel bi ñetteel ba ci dolli mooy te lettre bii sëñ Touba moo ko bind moo ko bind quatorze jours après seen lettre bii ngeen di wax te lañ ca bind gis nañ ko archive indi ko Seydina Omar Ba indi ko ci téeréem page cent treize mu leer nañ yi Omar Ba mi ngay wax Seyd Omar Ba monsieur Omar Ba ci boppam leetar bii mën a jox te tam tàmbalee ci wasalaamu ala man itabaan huda jeexee ji wasalaamu ala man itabaan huda moom moo ko bind man nag am na mbett lool parce que jàppoon naa ni boo li ngay coow lépp ñaan mbër maa nangam di tudde nit mbër ay ladd wax ju ñaaw yu nekk ñu wax ko jàppoon naa ni boo ñëwee débat bi sax du jël 30 minutes wala du jël 15 minutes da ngay ñëw rek ni sëñ bi bindu leetar bi parce que nangam ak nangam bu ko defee léegi man du ma mën a fee weddi affaire bi mu daal di jeex <laughs> te la yow sama benn wax rek sa ngay kon ne sukkandiku ca kon ne di wax waaxiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin léegi xam naa nag euh, suñu xarit maa ngi lay jaajëf lu baax jàpp naa ne débat ma mun fii ndaxte nag ñoo ngi delluwaat ci ginnaaw yaa ngi waxaat di répété te nga mën a ñoo doyloo nit ñi li nga xam ne dégg nañ ko ah su fekkee ne leeral nga fi loo xam ne day wane lettre bi taxawut nit ñi dégg nañ seen xel xam nañ ko su fekkee ne leeral naa ko lu yoon ne leer bi lettre taxaw na jàpp na li ñu di doy na donte nag man tàmbale gu ma dama doon indi ay dont rek ci li ngay wax ah, peut-être na ma beneen beneen yoon waaye mën na yéemale fii mbir bi te sax dafa am benn munaasaba bu am xam munaasaba dañu koy faral di wax ci ilmul Qur'an waaye nag ci def naa ci lépp niñ ko di ko di ko ciy settantal mooy da ngaa tàmbalee ce débat ci loo xam ne wérut yàlla subhanahu wa ta'ala tëjal la ko ci loo xam ne tamit wérut mooy loo xam ne ay sos la nga tàmbalee daal di tëjee loo xam ne sos la waaye yaa ngi na xam ne dañoo dem ñu daal di tëj seen ba pour nga bañ a gis li nga xam ne mooy ñun lañu lañu indi li nga bàyyiwul xel rek te mooy nit du ëppal mais da nga xaw ëppal tuuti da ngay gaawtu nit du gaawtu te am naa ne fa nga nekk ab kilifa nga day bàyyi di gaawtu te ànd ak sa sago di gëstu bu baax bala ngaa dugg ci loo xamut bala ngaa dugg ci guutam waxoon naa la ne soo ñëwoon débat constitution di nga ko jëlee gàcce gu rëy góorul fàtte jàpp naa loolu moo la dal fii tey ndax da ngaa dugg ci loo xam ne xamoo ci dara te ku dégg xam ne xam nga daal li ngay wax bi ci jiitu mooy lettre jaune boo koy lettre bu la xaw moon luy lettre jaune lettre bu li loolu noonu mooy même lettre bi la ab mbokk moo ko jëlee daal di koy euh, daal di koy bind wàcce ko ngir mun gën a neex a gën neexal yéen ndax ci aslu ba euh, nekkut lu neex a lu neexal lii pour a pour ñëpp loolu mooy saa ñu daal di inactimat ci boobu daal di koy liir thaniyan yeneen xam nga ne <laughs> nga reetaan naan lu reelu dañoo dindi mbir ma ca chaîne ba ñun dinduñu dara ci chaîne ba chaîne ba ci boppam moo tëj waaye amuñ dara luñ fa luñ fa dindi da euh, nga jàpp loolu kon loolu tamit tuub di tëjal amut kon day li ma ciy déggee mooy ah kon xaatim bu sami wax lu ko leerut day wax loo xam ne xamu ci dara waaye andi ci dëgër fit gu gu rëy la nga wax ci mbaaxaan jóg di ko répété di ko répété tontu naa la ca la wax ci mu yónnee ko la li nga xam ne moom mooy euh, euh, archive lu ñu wane waxoon nga ko ci biir ci biir wax gouverneur ba waru ko yónni li nga wax nii da koy dégg rek seetaan naa <laughs> sa waajo di Guèye dégg naa bu baax argument bi indi dama koy topp lu bari xaw ma Moussa Moussa Guèye Sylla leer naa ñi nga xam ne ñooy bind di wax ci pour marché bu baax ci seen seen i seen di génn ci murit ak lay bind lañuy ñuy a sax fu teg lettre bi waaye loolu yëpp amul dara lu ci taxaw lépp rek waxi fanatique la ndax ñoom dañoo jàpp ne lu ayba la tax jàpp ne ayba la nag mooy dañoo jàpp ne ñoo jàpp ne ah te war a dañoo jëloon yëkkati sëñ bi yëkkati ko wala bokk sosal ko ay mbir yoo xam ne yorut mbir yooyu su feeñee day doon ayba ca dañuy jàpp ne ayba la ñoom mbir bi mën naa doon mun naa bañ a doon benn benn pa eh, Euh, benn pa benn ay waaye nag ñoom sax ñoo la tane ci ni ñu koy indee parce que ni ñu koy indee da gis ne nekkul loo maîtriser waaye loolu sax ñoom si boppam la ñuy indi si sëriñ yooyu suñ ko indi woon du mun a taxaw fii ndax nekkul ay murit ay fanatique yu ñëw ñu wax seen sëriñ dara ñu ne loolu duñ ko nangul kenn ndaxte ñoo jàpp ne loolu ak musiba ànd ak ne Paul Marty ñoom a euh, Vincent Montaigne wala Cheikh Tidiane si bind na ci Tidiane si bind na ci ab ab ak tey wala Rawane Mbaye wala keneen ak keneen loolu yéen seen bopp la nekk rek Rawane Mbaye téere ba mu koy bind rek yaa ngi mel dafa bind Sëñ Tuubaa bindu si Sëñ Tuubaa ab pa ay parti kese la ci waaye ci ñëpp la bind la mu waxal Sëñ tuuba indi ko mu nekk ci archive loolu la waxal ay sëriñam kon nekkut ne moom daa jàpp ne loolu da coo doon ŋàññi kenn ànd ak ne ñi ngay jàpp ne dañuy ŋàññi sa sëriñ contexte bañ ko doon waxee nekkut ak contexte di yëkkati sëñ beek di ko wàññi wala boog euh, jàpp ne colonisation dafa jeex ñu ne moom moo révérer Sénégal léegi ku indi leneen da nga koy wàcce loolu suñu contexte tey bii la waaye contexte boobu beneen contexte la te ñu ko bind nañ ko bind avec toute objectivité waaye histoire nag histoire dafa yaatu histoire mooy domaine boobu domaine de controverse la loolu ñu koy jàng ma jàng naa controverse histoire ab dafa nekk benn point boo xam ne point la ci histoire wala boog benn matière matière histoire loolu nag foog nit xam ko doo xëy daal di koy doon déedéet doo xëy doon sëriñ ànd di wër gauche ak droite fu ne nga dugg fa xëy rek bëgg a xëy rek daal di nekk historien wala xam li nga xam ne moom mooy mooy histoire wala déglu fii gauche ak droite rek daal di xam histoire kon histoire nag moo yaatu nit mën naa ñëw nekkul sax lépp lu nit indi rek histoire moom moo wér waaye nag soo bëggee wérati di dara daal di koy sànni ci histoire ah doo ko teg nag ci xët-xët ak ci sëñ bi wala samay sëriñ wala moom ñoo fi moom bamba fi moom de doo ko teg fa koy teg ci xam daal di doo ko teg terroriser nit ñi doo ko teg napp nit ñi doo ko teg ku indi rek nga dafa noonu sëñ bi doo ko teg ku indi rek nga ne dafa bañ sëñ bi doo ko teg ku indi dafa nga koy teg xam-xam nangul nit ñi la ñuy indi ku nekk daal di xool la gën a dal xelam mu daal di jël waaye su leen jëlee bi teg ko rek lu ñu wax ci sëñ bi rek su nekkoon la dëppoog la ngeen bëgg ngeen jàpp nit ñi naan dañoo bañ sëñ bi rek dañoo iñaan ak dañoo soxor rek kon iñaan soxor bañ sëñ bi waajib la su fekkee ne waa dëgg wax li nga jàpp li nga gëm teg ko ci ab logique ab cohérence mooy bañ sëñ bi mooy iñaane ko mooy soxore ko mooy loolu waajib la tiita la gàtte gi nag ak xasta beeg saaga beeg loolu yëpp mënut a tax mënut a teggi dëgg ci dara mënut a tax dëgg daal di daal di euh, dëgg daal di dëgg daal di bañ a wala neen daal di nekk nekk dëgg man fii laa yemal bi mooy suma audio bi mujj assalaamu aleykum wa wa barakaatu <laughs> tàggoo naa ni wasalaamaaleykum tabaab huda nee na guddi na min wi jot na <laughs> guddi na min wi jot na man de guddiwul fii xanaa man dix heures vingt et un jot na fi ne nii te huit ba tey maa ngi toog huit ba tey maa ngi toog géej gi dama ko taaxir julleegu ma ko fi ne nii ndax waxtu wi yaatu na dëgg débat bi am na importance ci xam ci xam-xam la ñuy leeral waaye yow nee nga dafa guddi foofu te weekend lañ nekk na yaa ngi pare di sa waay sa waay yaa ngi pare di nga nekk Paris di weekend suba di dimanche nga war a grasse matinée boo jullee fajar ba tëddaat nelaw ba tëyal am na nga am benn job booy def ci suuf <laughs> sincèrement parler man man ba xamoon lii wallahi lazi la ilaha xayru ba xamoon lii du ma fi ñëw di débat yow ndax man jàpp naa ne xam-xam si lañuy débat wax loo xam te ne day leer affaire bi jeex waaye yéen ngeen wax ngeen di falsifié nag di indi ay des solutions nag la ilaha illa ak di ma topp su ma waxee ko toppaat ci li ma wax di ma laayaat ak a wax yow li may wax bu ci bu ci defee réew bu ci laaj dajji ko nga indi yeneen wax gaaw mais yow loo xam ne nii subhaanallahi alazim euh, comme waxtu bi may ñu ko moo tax bëggoon naa am na feneen fu ma bëggoon a ñëwaat muy ci wàllu lettre bi mab moo naan li am ci biir lettre bi ci langage araab ma indi ko indi tamit yeneen bi taxbiraat yi Sëñ Tuubaa di waxee arabe loolu bëggoon naa ko xam naa ni comme da ngay daw bu keneen ñëwee wala bu ëllëgee bu ñu amee temps ci temps ci face au destin ma ma ñëw ci naa ñëw ci xasaayiti sëñ bi tamit naa leen ko dig yéen waa face au destin ngir mu gën a leer ci yéen dinaa leen indil ab muhaadara kaamila ci diggante sëñ bi ak tubaab yi ak ni mu doon te ak ñoom indi ci ay mbind sëñ bi loo xam dinaa ci wax ba àggal tey samay wax du ci bokk lépp ko maanaam du ma sax commentaire dama indi sëñ bi wax daal di toog loolu laay def maa leen ko dig yéen waa face au destin euh, léegi nag wax dëgg yàlla euh, bëggoon na débat bi continuer ñu am temps ba waxtaan ci Eh, ci maanaam ni sëñ bi daa lakki arab yi nekk ci lettre bi nga xam ne ay wolof képp la bëggoon naa koo xam Paul Marty ma dem Algérie Paul Marty ba dem Algérie ba jàng fa arab sax yaakaar naa bu bindoon lettre bi arab bi du bi du am ay njuumte ndax xëy na lu mu am na lu mu xam ci arab waaye ña fa doon bind nag dañ doon jéem a xeex sëñ bi te sëñ bi moom nee na an nahwu wal arudu wal bayaanu li sulibat wali bihi wali biha ayaanu sëñ Tuba boo liiree boo li boo liiree saadatu tullab wa raaxatun li daalibil i'rab ba dégg ko mu naan walan tanaali diina hatta tasturi jismaki ya zaynabu bi taxamuri ah di wax ci ni muy waxee araab ni mu neexee ni muy lakk arab ni mu neexee yaakaar naa leetar bi Sëñ Tuubaa wees na fu muy bindee arab ba pare mu nuru ay wolof mbaa muy nuru arab la comme yëkkati nga jotaay bi nag wax dëgg yàlla te yaa ko njëkk wax man sama ngor mayu ma woon ma yëkkati jotaay bi wallahi maa ngi am gan am ay yitte am woon Dakar seet si woon ma moo taxoon ma waxoon ni nañ débat suba ngeen di damay daw ma cancel loolu lépp ndax maa digee woon ni lu ma fekk dinaa ko ma matal loola nga ñëw naan da ngay yëkkati jotaay damaa am rendez-vous kilifa bu mag waaye fi ne nii damaa woo léegi ma ne ko da ma euh, une heure de temps mu ma ne ma une heure de mais comme yëkkati nga jotaay bi nag man gor laa ma la topp ba kon ndax man sama ngor mayu ma woon ma yëkkati jotaay bi mukk te yëkkati woo ko waaye nag ginnaaw yëkkati nga ko nag ma lay xamaat tamit ni la maa ngi lay baalu àq bu fekkee wax naa la benn dépassement bu ma la wërta wax wala ma wax la lu ñugu ñugal sa xol di la jégalu di ñaan suñu borom boole ñuy jéggal ndax ñun tasawuf loolu la ñuy jàngal maa ngi lay ñaanal te bu ma julligee wallahi bu may sujud dana ñaan suñu borom defal la tawfiix yombal say mbir te yombal suñu mbir ñu ñaar ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf sëñ Tuba teewaat nag maa ngi jéglu mbokk yi tàggoo woon na waaye il faut ma ñëwaat ndaxte modérateur bi mi ngi fi waaye Fadel moo bind fin nee na guddi na mi ngi fatu daal di bind fin te modérateur bi mi ngi fi woon yaakaar naa bu amoon respect ci modérateur bi sax dina bàyyi modérateur bi bindal boppam fin mais moo bind fin xam naa dafa mu doon jaaxle dafa jaaxle ci boppam xam naa rek ndeysaan waaye yàlla na yàlla dimbali dimbali ma rek yàlla yàlla faj say aajo yàlla taxaw yàlla na yàlla setal sa xol ba doo jàppal menn mag lu bon. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu taxaw tuuti bon imam lettre bi nga xam moom la fi da ngay ne lettre bi sëñ bi moo ko bind si loxoom wala lettre bi du lettre bu baax bu dee nekkul lettre bu baax ñu sàkk si aussi nga dugal ñu nga dugal ñu lettre bu baax bi incha allah bu dee aussi lettre bu baax la aussi nga confirmer ne aussi bii aussi moo ko bindal moo ko bind dee si loxoom jërëjëf. wax nañ ci xam nga lii wax nañ ci ndax wax naa la ni la euh, euh, perfect crime xam lu ñu koy waxee français perfect crime mënta am ci ci ci ci ak si perfect crime du am mukk abadan maam crime bu mat jarima kaamila laa tuujadu jarimatun kaamila maam crime booy def mu mat sëkk ci côté yëpp du am mukk dañoo waroon bi ñuy def sa wasalaam amay tabal hudaa ci mujj gi leetar bi ñu def ko ci njëlbeenu bi ngaan jaajëf murit amul solo marqué nga wasalaam amay tabal hudaa gi muy nekk ci bi waaye léegi lu tax amul ci njëlbeenu leetar gi waaye léegi lu tax kon ginnaaw nee na wasalaam ala may tabal hudaa te loolu ab yéefar lañ koy wax kon lan moo tax kon ci njëlbeenu leetar bi waxut woon loola lan lan moo tax njëbal ne ko maa ko maa ko yow yàlla yow mi ñuy jox cërub suñu borom subhanahu wa taala dem ba ci mujj gi ma <laughs> maa nga ma salaama amee tabax huda yow da ngaa a bu koy nuyu xanaa da ko nuyu ci njëlbeen nga kon te xanaa ñaari façon yu ñu bokkul xanaa doo ko nuyu nit doo ko nuyu en tant que ab julit en tant que sa kilifa di ko nuyuwaat en tant que ab yéefar da nga nuyu benn nuyoo rek mu gën. léegi yow leetar bii nii nga xam te ni moom nga fi indi <laughs> fadal mooy leetar bi ñuy waxtaanee wala ban leetar la nee nga ma liir ko nee yow ko ban leetar la bi foo ko bi mooy yow eh, fadal fadal ragal yàlla fadal leetar bi nga xam te ni moom lañ doon waxtaanee ndax mooy bii leetar bu zone bii. lettre bu jaune bii de moom lañ doon waxtaanee bu jaune bi moom lañ waxtaan waxtaanee am da nga koo binduwaat bu mu a leer da nga koo binduwaat bu mu gën a leer wala lan moo tax mu weex léegi tontu ma ci laaj boobu. waaw suñu aadama suñu aadama euh, da ngay xool loolu ma envoyé ngay xool loolu ma envoyé lettre yi ci ànd nga xool ko nga liir ko en français am na en français ñu traduire ko en en en arabe